di leen nuyu yéen ñëpp leen jox seen wàccuwaay kon mm, waa YouTube ak waa Facebook euh, waaw ma bëggoon a ñëw def ci waxtaan wu gàtt ci li nga xam ne mooy li lëmb mi du politique kese moo lëmb réew mi du politique kese moo lëmb réew mi waaye yéen ñi may topp kon ku ko mën a partager mu yaatu yen ñi koy yéen ñi ko teewlu yéen ñëpp la ku ci dugg daal fexeel ba sa morom mën a teewlu ñu mën a tàmbali waxtaan wi nu mu gën a gaawee. ndax yéen ñi may topp ñëpp kenn ku ci nekk xam ngeen ne yàgg na maa wax théoriser di ko wax te mooy loolu moo tuddee la mafia mafia bi nag xam ngeen ni ma ko tuddee la mafia politico maraboutique mafia bi politico maraboutique mooy mafia boo xam ne politicien bi ak marabout bi ñoo ko seq waaw le prince et le marabout il faut il faut aller chercher le prince et le marabout ngeen liir ko le prince et le marabout euh, mu mel ne fan yi nag politique bi daf ñoo lëmbe ñu nekk ci politique ak i parrainage ak i coow leeg dana dem ak du dem ak le 17 ak euh, rajeeg euh, candidat ci loolu moo gën a bari fan yi waaye nag bu ñu fàtte beneen mafia bi mooy la mafia maraboutique la mafia maraboutique loolu it suñu sama manin la xam ngeen ne loolu tamit moom daanaka léegi daal léegi mu bëgg cee nekk ak kàngam nag xam naa bu doon jamonoy seex dañ may seexal wala ñu mu xaddam ñu mu xaddamal ma am déet kon ñu yaatal ko mu yaatu ñu tàmbali yéen dong laay bu ngeen ko bu la bu bu bu àggee ci ab lim rek ñu ñu mën a tàmbali lim bi takkoo rek ñu mën a wuyal waxtaan yu tàmbali ko ndax nag Euh, dafa am nag lu fi xew loo xam ne bi mu fi xewee waxoon nañ ci ndax comme mafia comme politique bi ak maraab maraab bi dañoo lënka dañoo dañoo lënkale ñoom ñaar dañoo ànd di toog muy dox di teg seen yi di teg ko ci kaw askan wi xamuñu na askan waa ngi lekk ñu ngi naan seen yoon néew ci ba léeg-léeg sax ngeen dégg ci ay wax bu Macky Sall demee Tivaouane wala Touba ngeen dégg wax yu rëy génn fa yoo xam ne bés bu nekk réew mi yëpp dañuy dar seen i gémmiñ ndax jaaxle xam na ñi yëguñu coono bi askan wi nekke waaye ñoom c'est normal duñu ko yëg yàgg na leen ko wax mafia lañu li ci alal ci réew mi ñoo ko séddoo lu baax ci réew mi ni ngi seen loxo moom politicien bi ak sëriñ bi ki ngeen tuddee sëriñ naan doomu mag bu baax mi suñu sang yi waaw ñoom ñu ngi dund bu baax bu leen fàttali ko ah, am na xew-xew ba mun teewoon bu yàggul moom Macky di benn pàcc ci mafia bi dem na fa ba mu fa demee ki nga xam ne mooy Maodo si bu alaaji Abdul Aziz si adda baax di taaw dalal na ko ca Tiwaawan taatagal ko tagg ko wax tamit cofeel gi mu am ci moom ak mbëggeel gi mu am ci Macky Sall loolu di loo xam ne tamit droit am la nit la bokk ci réew mi am na droit far am na droit ànd ku ko neex am na droit tagg ku ko neex moom Maodo si ñu nangul ko ko lool mu dem nag ca wax ja ba xam na yokk ci loo xam ne yaakaaroon naa ne man naa ñàkk ndax wax ju ëpp la waaye dama la bëgg maa ngi lay ñaanal ku ne am nga ko sañ-sañ waaye nag la mu ca toftal loolu mooy li garaaw dama baamtuwaat tama waxoon ko fii bëgg ko baamtuwaat tey te mooy loolu muy defal Macky Sall moom Maodo si Alaaji Abdoul Aziz Sy Dabakh jur ko te yéen ñëpp ngeen dégg ko sosalu ko lima ko wax moo ko wax da ca teg ne li muy ñaanal Macky Sall ak di ko dafa ñoo xam ne loolu neexu leen mooy wax de ba noppi teg ci ne bu noppee sax da ñooñee daañu jóg xam naa yàq ko lu ne wala boog ñu am lu ñuy wax ci waxam ji muy séddale Macky Sall mu tekkee ne waaye ñooñee waxam ji muy wax moom moo de bu leen naqaree ñoom ñooñee nañu naan géej gi loolu ba mu koy wax booba kenn deewagul ci géej gi kenn tàbbeegul ci géej gi ba muy wax loolu. bu leen sama wax ji bu leen naqaree ngeen naan géej gi ci lan bëgg lu neex Macky Sall nee li waxan ji kum naqaree naanal géej gi moo doo ko wax de waaye ndeke naan géej moo gën a sedd dee ci géej ndekete boobu ñu ngi ñuy waajal suñu doomi réew mi di dee ci géej gi comme ay jën li dee ci géej gi kenn xamul lu mu toll déggoo ci Maodo waaye duñ ko ci mën a dégg ndax daf ñoo yéene dee daf ñoo yéene musiba yéene wuñu jàmm bëgguñu boo tax bi suñu ndaw ñu dee ci géej gi du ngeen ci dégg Maodo du ngeen ci dégg Muntaxa du ngeen ci dégg Mbay si du ngeen ci dégg kenn du ngeen ci dégg sëñ Siidi ndax bëgguñu askan wi dañ leen di jëriñoo mais bëgguñu leen day feeñ léeg-léegi seen wax Maodo dafa rëccal naan leen géej wax ji may waxal Macky Sall neex ba ko ko seedeel ci cofeel am ci moom ko ñaanal bu leen naqaree yéen ñi ko contre ngeen naan géej gi Maodo si moo ko wax naanuñu géej gi nag dañoo dee ci géej xale yi doomi réew mi dañoo dee ci géej taalibe yi yéen seen doomi dañoo dee ci géej yag na ko wax ñuy petit petit di saga ndey da nga torox da nga li torox tang ci la torox tang ni ci loxo kun borom kun fa yakun koko mooy toroxal doomu aadama mais du sen sëriñu lapp tay kenn munu ci toroxal kenn torox tang ni ngi ci loxo kun fa yakun waaw kooku torox tang koko moo yor kudul torox way kum gëmu leen yàlla yéen seen sëriñ ci ngeen gëm motax ngeen yaakaar ne ku len tuddu torox <laughs> parce que yalla sal problème yàgg na leen koy wax ngeen weddi léegi yàlla ngi leen koy wan jaaxaral jamonoy raxas la jamonoy leeral jamonoy fësal jamonoy weddi jamonoy gis jamonoy yàlla moo ko def jamono bii ba mu indee lënk gi indi internet bi indi ñoom Mark Zuckerberg la yàlla na léegi léppay leer en en en en instantané yàlla daf ñoo indil barzaq teg indil ñu ay portique ñu détecté weew di yuuxu internet may wax ngeen di dégg barzaq la yàlla indi. jamono bi jamonoy barzaq la lépp luy xew suba barzaq bala ñu fa àgg yàlla dinañu ko wan fii ci àdduna àdduna film bi fi lay dawee lépp luy am suba barzaq dañ koy gis fii àdduna yàlla indil nañu barzaq mooy link gi mooy internet soo ne kii kii kii ñu vaar la bés ci butoo daw ay at indi teg la sa jëmm taxaw ngay wax la nga daan wax ñu tegal la ko nga di ko dégg te deewagoo kooku mooy barzaq yàlla nga ñuy misaal ëllëg yow ma xiyaam nu muy demee dara du rëcc dara du rëcc ordinateur yooye mooy vaar yi tey ak lënk gi Mark Zuckerberg yàllaa ko yónni ci ñun Mark Zuckerberg borom Facebook ak WhatsApp yàllaa ko yónni ci ñun du ko ndaw léppay leer partagé mu yaatu TikTok Facebook YouTube yéen ñi dugg ci yëpp partagé leen ndax dañ leen a yëgal moo tax ngeen ñëw ku ci yëgul woon lii doo fi teew kon ku jàpp ne li ñuy wax am na njariñ ni nga def ba ñu yëgal la ko nga teew si fexeel ba yëgal sa morom mu teew si ndax bu fekkente ne yaa ngi ci lu am da ngay am yéene am générosité nit du soxor soxor baaxul wala égoïste sa bopp rek li ma nekk de am na njariñ baax na macha allah waaye xalaatoo say morom ñëw tàbbi si pour mën a dégg nit day am nit day yéwén ubbi sa xol yaatal lépp luy njariñ nga fexe ba ñëpp mën cee jokk luy musiba nga yaatal ko ba ñëpp mën koo moytu nit day am mën yërmande nit day bëgg moromu nitam nit ñangi ngi ci ci muntaha muntaxa ci yabbi mbay ci mansu ci yabbi may ñes mi demoon sudan nan da jibule jubale ba ngeen koy teertoo nan avion mu mel ne sokum eh, job ngeen nan da ngeen koy teertoo xaalis la wuti woon wul kenn sénégal gi nit ñangi ngi maké ngi ray tej nit ñangi ngi ci géej gi déggu leen maay ñes ci yabbi sa yoon newu ci ah, dafa demoon tan yi la jëm ñaaji di xol kër ga ko fa Macky Sall mu diko tabax jëm ñangi mom la demoon seeti may ñes and ak and ak ay doomam aéroport bi maay ñes amna ci 5000 mètres carrés ci turu waa kër Baye Niass waa Tivaouane am nañ fa 5000 mètres carrés ci turu waa kër Seydil Hadj Malick waa Touba am nañ fa 5000 mètres carrés ci turu waa kër Serigne Touba waa Yoff 5000 mètres carrés ci ñoom ñëpp Serigne si yëpp Macky Sall daggal na leen kenn ku nekk ñay yu ku nekk da ngay cëru ñoom ko cant ak màggal di leen jox seeni addiya ngeen continué nekk ay tomb nekk ay làppato da ke ngeen di dee làppato rek su ko waxee ngeen saaga man tey te yéen lay xeexal ci làppato naan may ñett dafa demoon Soudan da leen a jubóole mbatati patata ay maleetu xaalis la wuti woon mënut a jubóole kenn ku mënut a jubóole sa kër mënoo jubóole ay jàmbur Soudan tey la gën a takkaat naas tey la gën a tàkk tey lañ gën a jubóoti ci yoonam niwu ci tey teg ay mafia am di dox teg seen i dil kon nekk ci politique bi rek di wax yooyu teewul tamit ñu nekk ci mafia maraboutique bi parce que ko tuddee la mafia religieuse c'est une ma c'est une c'est yéen xamu leen religion diine ak yëfi marabu ay tappale système bu ñu teg di dund ku dee sa doom doonu la ñu di ko ñu di ko rompet di di lekk di nappaale seen i jeeg ngeen ne loolu mooy diine loolu diine loolu ay tappale la ay tappale fan yi ngeen dégg ne Maodo si mi ñu naan loo woon géej gi sa forom ñu dee ci waxu ci ndax taggi Macky Sall dañoo wax ne dañoo jël xaalis ci këram ñu ne trente millions yu ànd ak ay takkaay ay ore ci bijoux yu àgg ci vingt cinq millions boo ko boolee muy cinquante cinq millions juróom fukki millions ak juróom yuñ ne génne nañ ko ci këram médias yi presse beeg ñëpp journalistes yi wax ci ñu yuuxu ko kenn ku nekk fan yëpp mi ngi daw mais man dama kotalul woon ndax suñu yii ñu nekk xam ngeen ko waajal 2024 ba taluma lii mais àllarba la ñu gàmmu alxamis laa yëg lii gàmmu ci àllarba la woon su ma juumul bisu àllarba la woon ca ëllëg sa alxamis lii ñuy coow tey booba laa ko yëg ba gàmmu ca gàmmu Tiwaawan ba laa ko yëgoon ba léegi waxuma ci donc xam naa bu baax dossier bi la ci xew yépp xam naa ko réew mi nag mbir day xew duñu wax li xew de ñu dem seeti observateur seeti Seneweb soo ci seen fenkat yi nekk ci média yi fenkat yi te journaux yi yeeg revue de presse fenkat yi ñu soppi mbir mi tëgg ko tëggin woo xam ne taqal ci ay gorsu set wicc ngir lan nax askan wi waaye li xew dëgg dëgg dëgg dëgg bokkul ak liñ ci wax ci média bi lépp ay fen la man maa leen ko wax ay tappale neen neen neen neen lañ jël sëf ko ay doomu aadama taqal leen yóbbu leen dig mafia c'est la mafia bu sëriñ bi soxlaa politique bi jàppale ko ñu jàpp ay di tëj politique bi soxlaa sëriñ bi takk taalibe jox ci politique bi mu jëriñoo ñu sànni tëj c'est ça la mafia politico maraboutique wax naa ko ba tey ngeen saaga ndey bés bu nekk yàlla di leen wan li ma leen di wax yàlla di ma dëggal man di ma wan ne lii ngay wax muy dëgg preuve yaa ngi nii They got it. alors un instant yow ñi saaga TikTok bi yëpp comme ça nga génne leen soo leen génnee dootuñu dootuñu comme ça comme daf leen naqari wax ji nga génne leen mu bañ leen a naqari comme wax gi da leen di naqari eh ñu génne leen comme ça du leen naqari du noonu. Voilà. dégg nga de àllarba la ñu gàmmu Tiwaawoon alxamis ma yëg càcc gi ñuy wax ne jël nañu dajji koofur foo dugg fee kërëb kërëb yéen ñi may topp newoon naa leen ne kër Maodo si ma ci géej gi am ay caméra yoo xam ne boo sonee ci buntu kër gi caméra yi dañ lay gis ñu xam kuy dugg kuy génn ku ñuy ubbi la kuñ dul ubbi ñu ne kër googu la ñu ñëw sàcc ko dajj ko jël fa ay vingt valeur de vingt cinq d'ailleurs ëpp na ko dañ koo wàññi li presse bi bind ak la fa jël ne la ñu wax ne jël nañ ko fa ëpp na loolu deux cent cinquante million la ñu wax ne moom lañ fa jël au lieu de trente millions ci cash xobet xobet ak valeur vingt cinq millions ci ay takkaay ay bijoux ñoom ci famille bi li ñuy wax di ko ngun nguni ëpp na loolu waaye dañoo am kerse ne lu takku xaalis bu takkoo noonu génn na kër Maodo si bi taawu Alaaji Abdu ci biir Ndakaaru deux cent cinquante millions juróom fukki deux cent cinquante millions mooy ñaar téeméeri millions ak juróom fukk moom lañ ne moo génn ca kër waaye loolu ñoom am nañu kersa di ko wax ndax bu boobaa nit ñi daaj ñi ñii fu ñu jëlee xaalis waaye même bu doon million daañu laaj xaalis bi ñoom fu ñu ko jëlee toog muy dox gi léegi dafa mujj nekk tëdd muy dox parce que toog muy dox laa doon ñaxtu léegi ñu ne ma nekkatul toog muy dox ndax toog sax dafa metti léegi da ngay tëdd muy dox moo tax kuy dee ci réew mi duñ ci wax ku Macky Sall yi rey duñ ci wax ñoom ñëpp ña ngay rang nag dinaa ci agsi ci kanam ñu def seen plainte lañ wax àllarba la càcc gi am lañ wax bisu gàmm ma yëg ko alxamis ajjuma ba samedi ñoom ñi ngi Tiwaawoon Maodo si yëg na ne am na lu xew këram ndakaaru ci àllarba bi yëg na ko alxamis bi yëg na ko bi ma ko alxamis bi ma ko yëg moom yëg na ko jabaram yëg na ko ndey Sofi ñu toog Tiwaawoon ba samedi bi xaw ma ci weekend bi la ñuy soog ñëw Dakar ku ñu sàcc alal ju toll noonu takkoo see bagage dem xool li xew sa kër nga toog ci waawoon de àllarba alxamis àjjuma ba ci samedi bi wala dimanche bi ngay soog ñëw Dakar nga ne dañ laa sàcc alal ju toll noonu mbokk yi tappale yi dafa bari ci réew mi tappale yi dafa bari ci réew mi tappale yi bari na mbokki Maodo si jóg leen ngeen dem sauver seen mag ngeen jël ko génne ko ci lii ñu ko dugal mbokki Maodo si di doomu Alaaji Abdul Aziz da baax dem leen ngeen sauver seen mag Maodo si loxo yi mu tabbi wurul te du kenn nag ku dul soxnaam soosu di nday sufi si nday sufi nday sufi nday sufi bàyyi sa ndey nday xaritu Marème Faye Sall nday sufi xaritu Bali Muntaka ndey sufi bàyyi doomu jàmbur ndey sufi bàyyi li nga nekke nday sufi génnal ci li nga nekke nday sufi attention nday sufi attention nday sufi si attention

mas a gis lu mel ni ku mas a gis lu mel ni ku mas a gis lu mel ni yéen lekku leen naanu leen yéen a gi bëgg a dee ñu naan kër Maodo jël nañ fa trente millions ci ab coffre ak ay takkaay yu tolle ci vingt cinq millions ñu ne ëpp na ko sax ñaar téeméeri million la ak juróom ci réew mi fi réew mi toll yéen Sénégalais yéen a ngi bëgg a dee naan doomi mag ñu baax ñeeg mag ñu baax ñi nga xam ne baax gi yëpp ñoom dañuy toog muy dox di tëdd muy dox tabax seen kër yu na boy te géej gi ngelaw leen upp yamuñu ki de ñu ne ci ràpp ab coffre fort ku mas a gis lu mel ni ana sëriñ nag gay ab coffre fort buñ demee ba ñi ngeen jàpp ne ñoo leen xamal qaala allahu qaala rasul bu ngeen demee ba wóoru leen seen diggante ak yàlla ba yàq ne ñoom ñoo leen gën ci walu seen jaamu yàlla ba ngeen am ci ñoom yaakaar fii ak ëllëg ñoom sëriñ soosu di tabax seeni kër di def ay koppar for <laughs> subhanallah la ilaha illallah subhanallah wallahi da ngeen dee am na ñoom tabbi safara yéen a bon koppar for bu ñu def xaalis ci biir kër sëriñ bi subhanallah ngeen na yàlla ngeen di wër ngeen na da ngeen dee tabbi àjjana fu ngeen fu ngeen jaar fan ngeen jaar fan ngeen jaar da ngay xool yéen a ngi xëy di yenu ay dàmbay jën di yenu ay saaku ceeb ca poor ba di xar mat di jaayi gerte caaf di dakk dakk yéen jigéen ñi li ngeen di daj bu ngeen fajar ngeen di yeewu suñu maam yeeg yaay di jaayi taabal yeeg keccax géej gi ci marché yi di dakk dakk muy taw yéen nday si nday sa li ngeen leen a am junni bu bokk ndey ak bàyyi leen ko am booba jamono bi ngeen yeewu nday suufee ngi nelaw nday suufi jabaru Maodo jamono bi ngeen yeewu yéen suñu yaay di dakk dakk moom ma nga tëdd nelaw youtube la xam duy ay koppar forum ay millions yu dul jeex yoo xam ne bii Macky Sall koy indi bii Barthélémy Dias bi ngeen dénk meeru Ndakaaru moo ko koy yóbbul ci alalu réew mi Khalifa Sall ñooy takk di yóbbu ñoom Jean Claude Mimran ñoom Ndiaye Ndiaye góor jigéen ñooy takk di yóbbu ñoom Youssou Ndour ñoom kenn ku ci nekk di dugg di seeti Maodo ñëpp naar yi libanais yi ñoom ñëpp fi mu toll nii bi ak coow li ñi ngi encaissé bu baax a baax ku nekk yaa ngi dem na ah masa massa yëg nañ ko massa dix millions vingt millions trente millions kal ñi ngi encaissé nday sofee ngi encaissé fi mu ni nii système la de système la dinaa ci dikkaat ci kanam li ci gën a garaaw mooy nee nañu càcc gi al àllarba bala a bisu gàmm alxamis àjjuma ba samedi xaw ma dimanche la ñuy soog a ñoom jóge Tiwaawan ñëw ana caméra yi ne woon leen fii kër gi am na ay caméra ci bunt bi wala ngaa dugg waaye dafa am ay gardien ana gardien yi ana caméra yi te xam ngeen lii leen guleen de c'est pas la première fois lii di am ñu di ñu tuumal ay nit ne dañ leen sàcc bii mooy troisième fois chaque année gàmm su amee nday sufi dina fexe fexe fexe ci ay pexeem ba dañ koo sàcc dañoo jël mbir ma nag léegi sauf ko Maodo si mais Maodo du ci dara yëgul xamul lu xew jabar ji moo tëgg plan bi moo teg dil bi jabar ji nday suufi moo nekk ci ginnaaw dil bi ba noppi nag mu toog te jàppate ngi daal turum génnul fenn turum Maodo si la ñuy def ci média yi Maodo la ñuy revue de presse Maodo la ñuy pamti pamtee nday suufi mooy nday mbilli ji moo jël doomu jaamu takk ko ba mu ne kodd téeku di ko manipuler nday suufi jabari Maodo moo nekk ci lii Maodo yëgul tinul yoonam nekku ci moo teg dil bi ba noppi nag ñu yóbbu ko ci plainte yi yóbbu ci média yi yóbbu fépp nag ñuy manipuler Maodo ba noppi nag mun làqatu ca ginnaaw nag bàyyi turu Maodo si bi nag ci presse beeg média yeeg li gàcce la doomu alaajal Abdoul Aziz Dabakh taaw dund ci réew mii ba wuuji boromam ci sans faute parcours sans faute ñëpp ne gonga mu bàyyi la fi bàyyi la aw sa suuree ndax am bàyyi boo xam ne judd na ci am réew ba wuuji boromam dem ba sàq te kenn amul lu mu ko jame fu ñu ko tudd ñëpp ne est-ce que tout le monde unanimité mu bàyyi la fi ngay taawam nga xam ne wallahi am nga sas sas dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg nekkul sa bàyyi bàyyi fi ay milliards nga war a am ay milliards sas dëgg dëgg dëgg nekkul sa bàyyi bàyyi fi ay jong maaki ay yu kenn xamul nga war ko ci dàq sos dëgg dëgg dëgg dëgg mi ngi sa sa bàyyi jaamu yàlla ba ñëpp da gong mu bàyyi la fi ngay taawam nit ñi di la xaar nga rey sa bàyyi boobee ba roppi ko wala nga yam ak moom Maodo ñu naan Maodo si mooy porté plainte lu muy porté plainte Maodo waroon ngaa am kersa Maodo yow waroon ngaa am fulla kersa ba Maodo buñ la sàccoon milliard doo ko sëpkat ay waay Maodo si sa baay bu baax be Maodo xoolal ci sa alaaji Abdou muy gis Maodo xanaa alaaji Abdou juru la ay Maodo si xanaa alaaji Abdou juru la ak soxna Tabara Gaye suñu maam ju baax jëm di sant cell gaak fulla gaak ak dégg nga maam silwise gaak ak ak ak ak ak ragal yàlla gaak ay waay Maodo si xanaa Maodo doomu alaaji Abdoul Aziz ak suñu mam Tabara gay ay Maodo si ay Maodo ay Maodo ku mës a gis lu melni nii ku mës a gis lu melni nii waaye lii de xanaa zaman la xana aduna bu tukki la xana li akhiru zaman la wallahi sa waajur ya amna ñu leen métti ci seen ginnaaw ñu nga bal sax waye amna ñu leen métti sa waajur wu jigen soxna Tabara gay ci sirwi ga ca fulla ga ca sutura ga ca bëgg ah, dabbaax malik ga ca topp ndigalam ga ca sellam ga ca ca ca fullaam ja taxaw tem nga xam ne yow Maodo xam nga loolu boo masaana gis sa yaay dangay ngay say tànk taxaw sukkuruk ndax ragal ko ci lan ci ci ci ci fulla sa yaay tey lii bu ko fekkoon gàcce na ko wallahi al azim tey bu fekkoon suñu maam soxna Tabara Gaye tooy gàcce rey ko ay Maodo waaye lii lépp jabar jabar rek jabar ji soxna Sofi mi nga xam ne baayam di sëriñ Habib si rakk la ci alaaji Abdou Aziz Dabakh sëriñ Habib ak alaaji Abdou ñëw bokk nday ak baay sëriñ Habib moo jur Sophie si alaaji Abdou jur Maodo si Maodo si takk Sophie si seen ñaari baay yi bokk nday ak baay ñu nekk ay maga rakk lii lépp Sophie si moo ko dugal Maodo ñuy mun mu kenn du ko wax Sénégal seen mag ñu baax ñi ngeen di wax seen doom yi mag ñu baax ñi Sénégal ak ngoog ñu baax ñi ngeen naan ñooy seen sang seen seen dund ngi nii ci lii la ñu dund lii mu des xaalis boobu ñuy wax cinquante cinq millions ñi naan deux cent cinquante millions Maodo foo ko jëlee Maodo xaalis boobu foo ko jëlee Maodo wala da am usine bu tëgg xaalis sa moo yow luy sa métier luy sa liggéey foo jëlé boobu ala ah tok muy dox ak teud muy dox d'accord tok muy dox ak teud muy dox waye sénégalais yi di ngeen yeewu par force wallahi di ngeen nek ay nit jublu ci sen bop jublu ci sen njabot njaboot sen wajur ta bay ni parce que li mafia mafia bu rëy ni photo bi ma len defal yeen wa tiktok gis ngeen photo bi yeen wa tiktok TikTok gis photo inauguration grande mosquée de Dakar le 27 mars 1964 Hassan II moo ko may ko Sénégal état du Sénégal fi nekk jamono koy ñu Sénégal le roi Hassan II moo Sénégal gépp ñoom ñëpp nangu Touba Sénégal gépp Abdou Aziz ñu ci doy moom kot pour première prière ci inauguration jumaa ji alaaji Abdou la ñuy jiital ñëpp nag gis ngeen ko moo toog noonu ci gos Thierno Seydou Nourou topp ci gis ngeen ko keneen ki mooy Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ñu daje fa kii alaaji ñëpp na gonga moo jur Maodo mi naan dañoo sàcc sama alal ci sama biir néeg sama coffre-fort alaaji Abdou mi ko jur moom mu saam coffre baayam musta xamul luy koppar alaaji abdu musta am koppar foon moom bu dugg bu dërëm bi bu duggee ci poos bi génnaat léegi du fa sax tooxaa man dugg sax mu joxe bi mu génnee àdduna bàyyi fi dara dara bàyyi fi milliard bàyyi fi dara ndax amul koppar foon moo da moom ma ngay koppar foon dugal ci àll di lekk banaan di di di di korkoral moom ma da subhanallah la ilaha illallah ku mas a gis lu mel nii a gis lu mel génn lii mooy seen diine génn lii mooy lislaam lii lii mooy diine lii yéen Omar Sall ni ngeen jàpp tëj ci kaso sax daf leen yey heureusement ba fekk lii bu ko fekkoon ci biti ngeen xam heureusement ba ma nga ca kaso ba ngeen ko pamti pamti yóbbu def ca kaso ba ci neen mbalaan yu ngay def naan laa ilaha illallah allah allah allah Omar Sall am na dëgg waaye tooñ na dafa tooñ mais am na dëgg ndax bu ne lii ngay def yonent bi xam ko fekk wax na dëgg allah allah allah yonent bi yonent bi da lal malaanu wasifa yonent bi xamu ko dëgg la dëgg la wax na dëgg waaye fa mu tooñee mooy fa mu ne saxaabatul kiraam yi ñoom yonent bi daan nañu julli ci yonent bi di wax allah di sabbal yi borom bi allah allah allah allah ñoom xam nañ ko ñoom yonent bi rek ñoom saxaaba yi daan nañu def allah allah allah ustaas wax nga ko wa allah allah jojo ñu daan def mom la ñi di def ben allah bi la amul ñaari allah nañ koy defé ak nuñ ko mënti defé li am solo du lolu détail bi nga dugg mom yow Omar Sall ba togn moy nan bidda la ak du bidda nan allah allah ak allah allah allah la rek seen gu toy ak seen gu wo ci yam comme ñom daan nañu wax allah ñi di wax allah Omar Sall fofu nga tooñee allah mom allah rek turu yàlla kenn du ko critiquer képp ko daan allah war ko ŋaññi waye nan niñ koy defé moy bidda lu sa yoon ci niñ koy defé Omar Sall. lu sa yoon ni ñu ko defee yàlla mu dafa wax allah nii lañ koy defee kan moo ñu jàngal nu ñuy defee nu ñuy waxee allah nu ñu ko dul waxee boo demoon Chine ba fekk nu ñuy waxee allah da xam ne ni Chine di waxee allah bokkul ak ni Japon di waxee allah ni France di waxee allah détail yoo xam ne Omar Sall ci la dugg ba dugg ci kaso bi donte ànduma ci dañ ko war a génne parce que place am du kaso parce que même bu leen tooñoo tamit nañ ko répondre war nañ cee mën a jàpp nit ku bokk ci diine ji comme yow di ab julit yow nga nekk ab nga di ko tëjlu ci lislaam bi amul du dëgg lislaam bi war nañoo mën a atte ba kuñ ciy tëj ñu tëj la ko ci charia waaye sunna li ñuy nekk wasifa yeeg gàmmu yeeg cant yeeg ustaas yeeg Omar Sall yëpp lu ñu nekk ci sunna la ñu nekk si sunna kenn du ci fitnaal nit sunna kenn du ci technique parce que yàlla forcé wuñu ci sunna amul lenn loo xam ne force la ci ñu nekk ci dëkk bi di caaxaan nekk ci ay détail di tëj ay nit ci ay allah allah allah kii naan biddaa la da daaw ñu ko defee nii saxaaba yi daan nañ ko def euh, yow daan na ko def mais nii la ko daan defee nii la ko daan defee c'est quoi ces détails de la con là mais ñun demuñu fenn lekk ñu naan ñu ngeen nekk fii lëmbe ci ay détails yoo xam ne amul bopp amul genn ñi di plainte ñi di dugg ci kaso yi mais c'est incroyable heureusement sax d'ailleurs yow Maodo da nga am sens yow Maodo parce que li ngeen wax waxu leen ko de ay allah bi nii lañ ko war a waxee nii lañ ko war a waxee ay astaghfirullah bi nii laa dundee yow fi ñàkk fayda yooyu jamono boobu Maodo ngi yore ay 250 millions di gërëm mun tax xaalis di la xaalis ba turki ak Maroc di ko jox fu ne ngeen dee ci géej gi au lieu ñu gérer loolu ñu nekk ci ay détails c'est un pays mais c'est incroyable c'est incroyable réew mi lekku leen naanu leen Touba amuñu ndox amuñu dara réew mi yéen a ngi ci ndóol Omar Sall au lieu nga wax ci loolu nga naan ay lii biddaa la ak lee du biddaa bala maa dee ngeen bés bu nekk biddaa du biddaa yéen bu dee biddaa lu seen yoon lan mooy seen yoon ci ku nekk biddaa ku nekk ci ba man toppatoo kum neex nga nekk ci biddaa kum neex nga nekk yéefal kum neex nga nekk ak sama yoon newu ci man li ma gittal mooy ñun ñëpp naka la ñuy ba tabax réew mi am xëy am nit ñi di liggéey di kenn ku ne nga jaamu li nga mais nekk perte temps ci ay détails yoo xam ne kenn xamul lu mu doon te réew mi dëkk ci ndóol tubaab yeeg naar yi wëruñu téye suñu alal ñun ñëpp ñoo dem mënuñoo faju mënuñoo lekk au lieu que ñu xool nu ñuy wullee réew mi ba ku nekk mën a dund ñu nekk fii ku nekk naan sa tëkki ci bëgg dafa cëkk yow sa sikkin bi lee kii dafa yor nangami kii keekareke patati patata ba kañ ba kañ au lieu ñu toppatoo suñu dund nuñ ko tabaxee ba dund gi yell Mais non, mais c'est incroyable. Incroyable. les ngeen na japp ngeen gardien yi ne jàpp leen gardien de Pape Diop ngeen japp muy Abdoulaye Diop Abdoulaye Diop c'est un coursier mom lañ dan yónnee moy dama ko ñëw lu ci bari moo koy def kooku du gardien. ngeen ne moom moom moo daj ànd ak kan ngeen ñaari gardien beneen ñun tudd Mbagnick Ndong ak Maguette Ngom ak Mëgëy Ngom ngeen ne Pape Diop Ablaye moom moo ànd ñaari gardien non Mbagnick Mbagnick Ndong nekkatu fa gardien Mëgëy Ngom nekkatu fa gardien liñ bind ci presse bi wax ko ay fen dëgg gi dëgg dëgg binduñu ko dañoo laxas seeni fen teg seeni mbir nas ko ba mu jekk génne ko ci média yi revue de presse fenn Sénégal gépp sàcc amu fa kër Maodo sàcc amu fa bu fa sàcc amee nday sofi jabaram moom moo sàcc bu fa jëlee alal nday sofee ko jël moom jabaru Maodo bu ñu fa jëlee ay bijoux nday sofi ci boppam moo jenc ab jencam jël ab jencam ba noppi am ñu mu tuumaal mais kenn jëlu fa dara man maa leen wax loolu jàllu muus kenn jëlu fa dara ndax bii mooy ñetteelu yoon ñuy def lu mel nii saasu su gàmm ñëwee ñu bii dafa siiw mais daanañ ko def nday Sofi xam na bu baax li muy si nday Sofi si jabaru Maodo luy lu xew ci lii rek loxoom génnu ci waaye du ci feeñ da nga ne nii ko tudd turam du génn fenn man nii may génn turam man man kott maay wax turam Maodo du ci dara Maodo si dañu ko jekku ngemb ko di ko manipuler loolu mooy dëgg te jabar jee nday Sofi Maodo amna jabar ca Tiwaawan waye jabaram ge ca Tiwaawan du gis Maodo du ko gis fenn fenn fenn fenn jural ko ay domam yep ñom duñu gis seen papa sosee ku téye koo jox mu naan damay takk ñaareel damay tak ñettel wa ndax sharia bi yalla moo ñu ko sant yalla mo nañu dañu tak ba ñent ndax li patati patata hayat dunya nafsu rek yalla bu leen ne nga tak daf la conditionner bo leen mëna a waye bo sey nday Sofi bayyi sa awati awon. at ba at doo ko gis xamuloo dara toppatoowu ko faalewu ko lool du xaq Maodo jur laak dabbaax jur laak yonent bi sallallahu alayhi wa jur laa ci yem yàlla xàmmeewul ku jur kenn sariya am bi la teg ak luwaayam yi ku ko appliqué wul rek wala mënta jur baaxul amul doomu diw amul doomu ñun ñëpp nangul nañu alaaji abdu ñun ñëpp bëgg nañ ko ci suñu biir xol mu nekk référence ci ñun nekk nit koo xam ne dañu koy ci réew moom alaaji abdu waaye lu ñu ko bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg du tax ñun naa fekk ci diggante doom jum fi bàyyi joo xam ne tëgawul ci la bàyyam nekkoon déedéet dëgg rek duñu ay làppatu duñ topp doom ndax bàyyi bu doom tegoo fi bàyyi tegu ñu teg doom fa ñu tegoon bàyyam mais doom ji wuuteeg sa baay ñu wax la ne yow doo sa baay mu leer nañ dëgg rek moom moo ñu ko jàngal alaaji abdu nee na man da baax nii ñu ne ah mu ne bis bu ma doon atte ba atte bi war dal ci kaw sama ndodd bàyyi sidil xaaji malik te atte boobu di atte dëgg ma yor yar bi nga xam ne mooy karawaasu dëgg bi ma war ko riit ci ndodd sidil xaaji malik man abdul aziz damay jël karawaas bi door ko ci kaw sidil xaaji malik ndax dëgg yàlla moo ko moom loolu ci moom lañ ko jàngee moo tax tey bu ñëwee ba gis Maodo nekk ci loo xam ne nu réewul ak li bàyyam nekkoon dañ koy rek tax ci kaw ndodd Maodo ak jabaram loolu ci bàyyi Maodo lañ ko jàngee moo ñu ko jàngal ñun ay doomi ruuxam lañ ñu ay doomi deretam doomu ruu nag moo gën a wóor doomu deret ndax doomu ruu mooy ki nga jur ci jikko ki nga jur ci ki nga jur ci bokk for c'est biologique mais doomu c'est pas biologique c'est plus fort que la biologie <laughs> loolu nak xamna ñoo xamna dañ ki li wax kan xamul lu doot waye waaye man waaye nañu romb. ngeen japp ñetti nit pap job bi ngeen tuddé abdoulay job mbagnik Ndongo ak Maguette Ngom ngeen japp yobu dik ñu ak seen do tel tel abdoulay job dañu dam dañ ko dóor ba dam ko fi ndul dik dañ ko dóor ba dam ko pour bëgg mu avouer manam dañ leena torturer pour ñu avouer sàcc ñu jëluñu dañ leen a dóor a dóor maas leen ni courant ba damm tànk Abdoulaye Diop te lépp nday Sophie si moo nekk ci ginnaaw da jabaru Maodo Abdoulaye Diop dañ koo dóor ba damm tànk di torturé ko ba damm ko ngir lan ne ko neel yowa neel yaa ko jël jëluma ko mais la ba nga ba nga sonn gi nga sonn ba sa tànk sa sa tànk damm nga ne mën a te du yow ndax nga am jàmm loolu mooy la mafia politico maraboutique Maodo Seck jabaram ak Macky Sall kii téye nguur gi kii ne ooy moo yor diine te du diine ñu leen di jàpp yéen askan wi ñuy def seeni i mbir di leen ko sëf di leen dóor di tëj ak rey dara du yëngu li mooy mafia bi nekk ci réew mi ñu ne kenn du ko wax. moo tax fexe ba nekk doomi ruux ci ñu baax ñi yàlla baaxal fexe ba nekk seeni doom ci ruux. moo ëpp daraja ci yàlla ngay bàkkoo naan maay seen doom ci deret doomu deret du dara ndax janax am na ko mbëtt am na ko xojog am na ko piccum xaax am na ko sookum jóob am na ko lépp lu yàlla bind lu am deret day jur kon du dara doom bi jafe mooy doomu ruux doom bi nga xam ne day am sa ruux ca ca seen rawaxaan yi foofu ngeen di daje bu ngeen bàyyiwul secte yi ngeen nekk bu ngeen bàyyiwul mafia yi ngeen topp bu ngeen bàyyiwul nit ñi ngeen yaakaar na ñoo yee seen fii ak seen fële da ngeen ànd ak ñoom dee tàbbi safara laa wax sama wax day leer rek na butu wut li may wax lu leer da ngay ànd ak ñoom seen àdduna metti ngeen dee tàbbi safara ak ñoom parce que li ngeen nekk du dëgg du diine ay tappale la da ngeen a dañ leen fàtte parce que temps ñu ngi ci politique bi jàppale ba yéeg wàcc keroog ba ma gisee Ousmane ko ñëw seet si la benn yoon yow Maodo si nga recevoir ko ñu dem ba jëmmi jamono Ousmane Sonko demandé waat pour ñëw pour nga recevoir ko mu soxla la yow Maodo sa jabar mooy wuy sa téléphone Maodo si soo ko woowee këram doo ko jot téléphone am yëpp léppam ni ngi ci loxo Sofi si Sofi si da koo jël tëj ko ci néeg bi takk ko ba mu ne ko ba noppi nag ku lu waaye di ut ci Maodo wala nga bëgg a wax ak moom ci ci safi ngay jaar ba noppi ni Macky Sall ni Mariam Faye Sall ne kott Macky takk ko bam ne kodd noonu la Sophie si takkee Maodo si ba mu ne kodd noonu la Bali Muntaxa takkee euh, euh, Muntaxa ba mu ne kodd kaca Tiwaawan noonu lañ ko takkee ba mu ne kodd réew mi mi ngi ci koddaayu jigéen ñi wallahi azim Sénégal gépp mi ngi ci koddaayu jigéen ñi kumbay jigéen ñi fa la Sénégal nekk moo tax réew mi jagul moo tax réew mi yàqu jigéen ñi ñëw poñe réew mi di ko doxal ci seen i bëgg-bëgg seen nafs muy Marème di Sophie mi di Baali Muntaxa Kaca ñun ñëpp réew mi mi ngi ci lafu sëru jigéen ñi wallahi lazim waxantuuma nañ ma weddi buñ ma weddi ma ay bomb laa yor ku ma ci weddi ma jël samay bomb teg ko ci ko tël ci ko ëtt bi réel tël ay bomb laa yor foofu laa na nag gone yi yéen a may saaga mais seen bàyyi seen maam duñ ma saaga de ay bomb laa yor ci réew mi su ko waxee am na fu ma ko teg sax ma leen ko waxee war ngeen ma gëm foofu laa yem lii dafa ñaw dafa ñaw jàpp ay gor ay doomi jàmbur yu nekkoon sa kër di la duwee waaye ñoom tamit il le mérite ay Ablaye Diop ki ay Mbagnick Ndong nii làppato yi c'est très bien pour vous nañ leen dóor ba damm leen parce que du ngeen ay nit naan sëñ bi sëñ bi di xëbër xëbër yi nekk ci kër sëñ bi ki tànk ndox ki ubbi bunta ki tëji bunta ki jox wëgg xar yeeg di joxe ngooñ di jaayu taalibe baax na ci yéen baax na ci yéen sax ndokk voilà amu leen fulla manik Ngom Maguette Ngom manik Ndong abdullah Diop mi ñu woy pap Diop ñoo nga ca kaso pap Diop mom dañ ko dóor ba dama tànk ndax lan nañu avoué avoué leen ne len yéen la te Pape Diop kat mi ñu ba dama bi coursier bi magam bu góor ma nga ca kër ga moy togal modo ab cuisinier la modo jigen du ko togal góor góor ko togal modo si li nga xamal ay bour lañu jigéen sax du leen toggal ñoom Sénégal nga xam ne jigéen lañu aadawoo togg Macky Sall góor a koy toggal Maodo ab cuisinier bu góor la am Maodo si mi cuisinier moo koy xam nga duñu am jigéen bi leen toggal tubaab ah, moo xam nga góor a koy toggal Maodo moom dafa neen dafa silui sa boo moom dafa ut cuisinier tusuñe tus tusuñe bu góor bu koy toggal Maodo si <laughs> subhanallah ku mës a gis lu mel ni réew mi non mais yéen yéen kenn mës a gis lu mel ni ku mës a wax da gis lu ni mel ku mës a gis lii ku mës lu mel dégg nga di waaw nee na ñu ne sàcc ku leen sàcc ñu leen jël ay doomi làppato yu nekkoon ca ga di may wëgg xar yeeg leen jox ngooñ ñuy lekk di di di yëkkati bool yeeg bale ëtt bi kër Maodo làppato ya fa ne moo daa ay doom de ay doomam bu ñu lekkee ba nag duñu yëkkati seen bool bi ñu lekkee làppato yi ñoo koy yëkkati taalibe yi làppato yi lu manqué ca kër ga ñu ne yoo ko jël lu baax te kër ga doom yi jëfandikoo lu fa manqué ñu ne làppato yoo ko def lépp lu fa bon ñu ne doom yi làppato yi taalibe ñoo ko fa def waaye lu fa baax lu fa neex ñoom ñoo koy lekk lekk ba deseetu génn seeni dibi jaaxaat tal seeni télé climatiseur yi tàkk seen papa yor coffre fort di génne di leen jox ñuy ñu te ni mu amee nii ci Maodo noonu la amee kër sëñ Sidi de ba demee Touba Sidi Mbacke bu Abdoulaat noonu la même Faati ñoom gis ngeen sëñ Faati Mbacke ana ki maamam woon ci géej gi waaye ma nga ca Dubaay ga gat ma ngay xayaat ma nga ci hôtel Dubaay dina paaje moom maam Faati Mbacke ndax Sidi Mbacke ku jut Sidi Mbacke Abdoulaat Abdoulaat Seexul Xaddim ña ngay noos seen maam yow liggéey lañu wax de yor koppar foor yi taalibe yi làppato ba mu fees euh, Macky Sall yi sarse ba mu fees bu becco dee muy labat da Diallo yónnee ko benn taxi mbaaru ju ju jóge Dubaï euh, ceebu Caroline bu parfumé euh, ñetti million yebaale ci ay ay gannaaru dàq jàpp mooy pour le du pays mooy mooy ganaaru dëkk bi mooy bokkul ak poulet de yëpp ba mu fees jox ay da na ko na nga noppi nag neel tekk rek ñi ngi lay yàq lu ne mooy coowul béykat yi fii dañ koy suul duñ ko fuul fekk béykat day jiitu di jiitu suñ mun a xaar toj dañ toj sa kër dégg nga doon wax loolu ayda tey baali moom ma ngay def lu yées li ayda doon def mais baali dafa yor sant yu seer yi mbàkke la yor yorul sant bala fa gu jaay baali moomee nag tey mi ngi def loo xam ne fukki yoon Aida sañu ko def waaye Aida ba mu ko bëggee Muntaxa dana ko dama dama toj sa kër génn dëkk jamono boobee nag muy xuloog Muntaxa moom Aida Sidi Mbacke mi ngi ci suuf moom yónnee ko mbaar moo xam ne da cee yeb ay jus yu jóge Dubaï ci ceebu Caroline bu yi nga xam ne mooy Uncle Benz bi nga xam ne moom dégg nga maam parfumé la badoolo du ko lekk teg ci nag ay jus yu neex ak ñetti million na ak ay ganaar poulet du pays dàq jàpp yoo xam ne yeb ko ba mu seet yónnee ko yónnee ko làppato bi ne ko dama ko soxna Aida te ko dana pat te ma déglu dama ko pisé rek mu xam ni mako wax bu mu wax mu ne pat bu sama yalla dana géré problème bi ni ma labat te ay daa tinji waye ma ngay labat Ahmed Khalifa ñass jaar fe di labat kenn ñom ñëpp ñu saxato ay dana ku nekk bëgg labat saxat saxat nekk day ci dina day ci dina waye di nga mam njëkk njëkkante gi course bi course bi turfis waaw ña nga ca hippodrome de Vincennes waaw labali fas taxuta fasa raw fasa nga ca kanam waaw kenn ku nekk di njëkkante ñii taxi ñii jël ay taxi ba def ci ay grado dàq jàpp ñii di woote téléphone yi doxaan ñii di dikk ayda amul lu ñu ko digul ci àdduna euh, réew maa ngi nii Sonko woo Maodo ne ko dama bëggoon daal ñëw seet si la Sophie si Sophie mooy mooy téléphone bi ne ko wax daañ la woo li ma leen wax ni mat na attaque lu ki topp ba bareen ñi mësuñoo waat Sonko sos sufi ndax sufi ak Marème ak magam ja ca ciyaawoon jabaru mbay si ak baali muntaxaa ñoo teg seen mafia ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo pencoo yor seen association de malfaiteurs ñoo ànd d'ailleurs sax d'ailleurs j'en profite jamono bi may wax ak yéen ni baali muntaxaa mobilisé na ay équipe am pour ñu parrainer candidat wu Macky Sall Amadou Ba jamono bi may wax ak yéen ni am na ñu nekk biir Touba di def ay parrainage ci daayira yi mun muntaxaa moo joxe ordre moo joxe ndigal li am na ay taalibéy lappatoy mun muntaxaa yoo xam ne ñu def ay parrainage yu bari di ko utal Amadou Ba Touba jamono yi may wax nii baali muntaxaa mbay si Mansour nag moom xaalis bi ma nga tëdd feebar yéen ko gën a xam na laaj paralysé jabar ja jabar ja doomi alaaji Abdoul Aziz Dabakh la jabaru mbay si Mansour doomi alaaji Abdoul baax Dabakh jabaru mbay si Mansour ak Maodo mi ñoo bokk baay alaaji ju Ndiour jabari mbay si Mansour mi xalif bi jabaram ak Habib Habib ma ca aynu maadi Habib ma ngeen dégg dama bëgg Ousmane Sonko o ma ki sàkku ndax dafa dëgg dafa ñëw Habib moom ngeen dégg ñu di tam dëmm tam bëgg Ousmane Sonko Habib moomu ak jabari mbay si Mansour xalif Tiwaawan bi ñoo bokk benn ndey ak benn baay xabit moomu mooy benn doom kot bu góor goo xam ne seen néegu ndey am na ko Habib moomu moo ciy góor ci seen néegu ndey ci njabootu alaaji abdu jigéenam boobee nag di jabar ci mbay si Mansour mii xalif bi paralysé ni AVC ba paralysé tëdd na laaj léegi naa woo oh, dafa ubbi restaurant Tivaouane restaurant jabaru xalif bi daa ubbi restaurant ma ñu ne ma restaurant la fa ubbi la ci otu jaay ma ne ko lu xanaa ndambe lay jaay ma ndambe lu mu jaay ndambe ay poulet lay jaay ak di rusé ak poulet ak pomme de terre ma ko déet nee ko na jaay ndambe ñu ne ma lu tax ma ne leen parce que damaa dégg borom këram mbay si Mansour ne moom daa bëgg dabbe dabbe dabbe Youssou Ndour dabbe wi yoo waaw dabbe wi dabbe Mbaye bëgg dabbe man ne ku bëgg dabbe nag ba sa jabar ubbi restaurant nga war di jaay ndambe kon ne leen ko na jaay ndambe waaw ñu ne ma yow doo nit man jaay ndambe man ndambe man fu ma fa ñëwoon tey tuyaawoon li jënd ci ba ndambe laa koy daa bëgg dabbe dabbe Youssou Ndour Sénégal a ngoog seen mag ñu baax ñeeg doomi mag ñu baax yeeg suñu patati patata tous nada mafial voilà voilà L'idée de mooy Sénégal mafia ñu ngi connecté nag Touba Tivaouane ñu ngi connection ak Yoff ñoom dañoo am club wala ñu daje teg seeni benn lañ de ak ak ak ak ak ak ak ak euh, mafia mafia benn mafia maay ku fa dem daal restaurant ba yéen waa Tivaouane ku fa dugg na ngeen commandé ndambe laa moo de trente millions plus vingt cinq ça fait cinquante cinq ñoom ci seen biir ñu ne ëpp na ko dañ koy nëbb ndax am na montant yoo xam na bu ñu ko waxee àdduna bi génn si ñun ndax ñun dañoo jàpp ne amuñu dara nit ñi dañuy indil àddiya kon bis bu ñu yégee ne deux cent cinquante millions moo nekkoon ci coffre bi nit ñi dañ ñu mekk ñii dañ ñoo yàpp dañ ñuy fonto rawatina ñu xëyul defuñu dara deux cent cinquante millions coffre fort ku mas gis li nii te néeg Maodo pour nga dugg fa am na bouton boo xam ne moom ngay bës ñu ubbil la ko ci biir bu ñu ko vérifié mënoo dugg ci néeg bi ñoo dañoo dajji néeg bi patati patata non non dafa am non seulement dafa am ay caméra bala ngaa dugg ci kër gi mais bala ngay boo duggee ci kër gi am na ay caméra ci biir kër gi mais néegu Maodo ba coffre fort ba nekk foo nga dugg fa porte boobu dañ ko sécuriser dafa am code yoo xam ne boo ñëwee bësti ci bouton bi dafa am fu ñuy appuyer pour buntu bi ubbeeku rawatina ñu double verrouillé ko ñu ne buntu boobu dañ dajji dem ubbi nga dugg ci kër gi rek dafa jafe nga àgg ci salle bi jafe. caméra nga jóge ci salle bi dugg ci kër ci ci biir néegu Maodo bunt ba fa nekk kot moo koy ubbi mu jafe nga ubbi bunt boobu dugg ci biir néeg bi fekk fa coffre-fort boo xam ne euh, coffre-fort bu ubbi yéen ñëpp xam ngeen coffre-fort bu ñu tëj codé ko xam yéen ñëpp xam ngeen ne kenn mënu ko ubbi coffre-fort bu ñu tëj kenn mënu ko daj man ngaa ubbi armoire man ngaa ubbi batan coffre-fort moo fa nekk ñu def fa ay bijoux ay or def fa xaalis ñu ne coffre boobu la ñu ubbi c'est pas possible loolu xam ngeen mënta nekk. ay tappale la ki def lii tëgg ko ba noppi ne bëgg ñu indil ko alal mu annoncé ko ci biti jaarale ko ci turu Maodo takkal ko ci ndax ñu xaritu Maodo yeeg am di jàmm mi indi ñoom Jaaja Njaay ñi ngi indi ñoom Youssou Ndour ngay yóbbu naar yi ñi ngi yóbbu ñoom Khalifa Sall ki Barthélémy Dias ñoom ñëpp Mariam Fassal ñoom ñëpp kenn ku ne fi mu toll nii yi yónnee nga sa paquetu enveloppe waaw nday sofee nga tëdd moom di encaissé waaw lépp moomu pour mën a encaissé encore plus parce que ñu bari ñi ngi daw pëcc pëcc pëcc nañu lu tax parce que position Maodo hein, dafa xaw a jege position sëñ Sidi comme kee dafa feebar te mooy xalif bi paralysé ma nga tëdd ñu bari yaakaar nañ ne te bu fa jógee Maodo mooy toog mooy nekk xalif bi te xam nga station xalifal la station xalifal dafa am ay poñet am njariñ mu ci nekk ci lobbying ci poste ci marché ci yooyu yëpp ñoom ñëpp ña ngay daw nag di yàkkamti di jox Maodo xaalis jabar ji ngir bu ëllëgee bu fi euh, mbay si mbay borom ndambe borom dabbe bis bu fi jógee ndax dafa paralyser yaakaar nañ ne léegi mu dee donte yàlla xam ne am na nañu yaakaar ne moom léegi mu jóge fi parce que ñoom yaakaar xam nga affaire mafia la kenn ku ne ndax yow falu gi ngay falu ni tey dee ki toog ci place bi tant que deewul mënoo falu donc da ngay yàkkamti mu dee <laughs> parce que noonu lay demee du diine <laughs> donc yow bi ngay xëccoo du yaa fi dàq jàng du yaa fi gën yàlla du set yow la nit ñi gën bëgg déedéet yooyu yëpp toppatawuñ mooy diw mi fi toog tant que deewul mënoo toog noonu ngay nekkee xalif xalif moom mooy remplacer ku dee kalif nek je suis kalif khalif la moy ki fi togon de na ma fi mak may tok place am motax ñu bari taxaw di xaar legui nag comme ke dafa wop tëdd yaakaar ne moo mom legui mu nek khalif motax tax yaangi avance ci khalif gi ni ngi avance suufi nday nday suufi jabar ji moom ay dilam gaa yaa ngi ngi encaisser en attendant mu tok ci xilaafa gi ni ma tek teg seen dil mu am nag retour sur investissement parce que dañu nek ni investir te boy investir da ngay bëgg retour sur investissement <laughs> eh, la mafia c'est une grande mafia nga nekk ci am réew moom nee dafa porté plainte ñu jàpp Ablaye Diop Pape Diop coursier tëj dam dóor ko ba dama tànkam dig jàpp Mbagnick Ndong tëj jàpp Maguette Ngom tëj ñu ne def ñu ñoom ñoo daj ji coffre bi jël fa vingt trente millions xobet xobet ak jours vingt cinq million dara amu ci mais même su loolu amoon même su amoon est ce que xam ngeen ne réew mu normal moo de li mu def. jël 30 million ak ay bijoux teg ko këram bu nekkoon ci réew mu normal moo do ci kaso bi la jëm moom ak jabaram dañuy tëj parce que ñoom amuñu droit jenc code loi Sénégal day tere nga def quinze 30 millions ci sa kër ak ci bijoux yoon da koy tere moo li mu def infraction la yoon da ko topp moom moo do ak jabaram dañu war a yóbbu ci kaso bi tëj leen est-ce que xam ngeen loolu ñiy tëjlu ñoom nañu waroon a tëj ñoo jël 30 millions. ak valeur budget vingt cinq millions nga xam ne yoon def na boobu xaalis boo ko amee da nga war a dugal ci compte bancaire bàyyi ko ci ab compte bu fekkee ay bijou la nga ut coffre ci banque bàyyi ko fa loolu mooy li yoon wax ñoom Maodo ak jabaram dañoo jalgati yoon ba noppi nag di ay nit yu ñuy jiñ ñoo ko sàcc bi ñu ko sàccee kenn wuñu ko tëj kenn ñoom ñi ko doon njëkkil seen kër di ko terroriser di ko a ñoo def li yoon di tere ci réew mi ñoom ñoo ko def sans compter nag ñu wax ñu fu ñu jëlee xaalis bi ñoom xam nga gis ngeen fi ñaan Karim Wade dafa sàcc fu mu jëlee xaalis Macky Sall ngi topp Khalifa Sall fu jëlee xaalis Macky ngi topp ku nekk mais moo da war xaalis moom rawatina nag mu tëj ko këram nag di ko compé nag lekk dibi ak doom ñuy lekk di di dundee dibi dibi ak boisson ak lan jamono bi ñuy coow lii naan dañoo sàcc seen xaalis rek dañoo dajji seen i coffre jamono boobu première semaine bi après gàmm gi bi ñu ñibbisee ñoom Dakar ci weekend bi mercredi la ñuy gàmm ñu ne sàcc nañu xaalis bi ci biisu gàmm gi ci li ñu wax jeudi ñëwuñu vendredi ñibbisi wuñu jóge Tiwaawan ba samedi dañuy soog a ñibbisi Dakar fa ma fa ba ñu accès ci semaine boobu ci la Maodo ñeent ci doomi Maodo ñaari góor ak ñaar jigéen jël seen billet Air France réservé seen ay billet Paris ñu ne leen dañuy dem Paris une semaine tëddi Paris noppalu ndax dañoo sonn ci gàmm gi ay doomi Maodo de ñu ne muy Air France première classe wàcc Paris dugg ci ay hôtel yu cinq étoiles di noos ñu não dañuy dem noppalu ji Paris dañoo sonn doomi Maodo ñaar ñu góor ak ñaar não jigéen non mais Sénégal non Sénégal du am réew wallahi yéen non mais yéen yéen yéen yéen mais mais mais mais mais naa noppi sax lépp kenn mënu ko wax naan su ma tey bi walaay jamono biñ naan dagg nañu ko wax bi não fa trente millions ak valeur vingt cinq millions bijoux muy cinquante cinq millions moom lañu wax ci presse bi ci biir famille bi nee nañu mat na deux cent cinquante millions dañ ko rusa wax jamono bi ñu naan loolu am na ñaari doomi Maodo yu góor ak ñaari doomam yu jigéen muy ñeent dagg nañ seen billet Air France première classe dugg ci ay hôtelu cinq étoiles dem Paris tëdd ci jaaxaan dund di lekk di naan ak yéen xam ngeen dund Paris ni mu seeree une semaine ñu ne lan dañuy dem noppalu ji parce que gàmmu Tiwaawan gi dafa metti dañuy dem dallu ji par la ñuy noppalu ji seen maam yee ñoo jot addiya yi nag yi di ñëw ñoom ñoo am maam yu baax yi waaye bu ñu bëggee dallu seen dëkku maam yi mënuñu faa dallu amul dallukaay yu baax dañuy dem ca place yu baax yi tubaab yi na fa ràcc dem ràccu ji fa foofu moom mooy ràccukaay bi waaye seen maam yee baax waaye seen maam yi tabaxagul tabaxalul leen fu ñu mën a raccoo moo tax maam Faati Mbàkke doomu Sidi Mbàkke ngeen gis ko mu nekk ca Dubaay da dox ci gaal gi naan ana ko maamam julli ci géej gi waay ana ko maamam ci géej gi waay ku ñëwee na def bu ñu bëggee dund dañuy dem ca dëkki maamu jàmbur ya bu ñu dellu see Sénégal ne seen maan yee gën maam yëpp lii mooy Sénégal dëkkub làppato lii li may wax ni tant que jóge wu fi réew mi dox us ngeen fal junni Ousmane Sonko ku ngeen manti fal boo amul fit jàkkaarloo ak ñii duma leen ñu jóg liggéey yi comme ñëpp di futteeku dem ci port bi di yenu ay dambay jën pour ñu bëggee lu ñu lekk seen tappale yi tànk jógewul ci réew mi réew mi du dox da ngeen gën a ndóol ñoom ñuy gën a dund seen doom yi di gën a dund seen doom yi di gën seen sët yi di gën a dund seen sët yi yéen tàpp di gën a ba daa iman ngeen dee nag suba dekk ci ñoom ci kanam yàlla ñu naan xamuñu leen su ñoon nekku yéen ñu toppoon mba lee mbaa yàlla boole leen ak ñoom taxañ sànni safara maa leen ko wax te yéenewuma leen ko waaw gàmmu ba noppi Tiwaawan doomam yi kat doom ja dagg seen i billet ña koy dem noppalu ji Paris la ñuy dem ña dañuy dem noppalu ji Paris dañu sonn quoi gàmmu bi dafa métti nit ñi addiye yi talibé yi nuyoo yi si si si métti dox ah mais c'est fatigant je suis désolé oui oui j'ai les messages tellement j'ai serré la main écoute les badoleurs, les cancans, là, les talibés, si, si, si, Malik, tout ça, mais non, mais c'est fatigant, écoute, j'en peux plus. J'étouffe. J'ai besoin de me reposer. Bon, ben, écoute, on réserve les billets, les gars. OK, on prend Air France, première classe. OK, on réserve où La place Vendôme, Hôtel Hayat. Oui, allez, on y va. On va faire des courses à Paris, on va vivre un peu, respirer. Parce que là-bas, il fait bon vivre. Paris, la ville des lumières. Les bons restaurants, les bons hôtels, ça respire. C'est une ville bien faite. Mais on n'a pas ça à Théao ni à Dakar. Allez, on y va, les gars. On est des si, on est des, des nantis. Voilà, euh, c'est pas des lapotos on y va à Paris on va on va bien vivre on dépend donc de la photo. Adieu, bi nañ ko dem lekki Paris <laughs> boo demee Touba c'est pareil Hein? Ndiassane c'est pareil nga dem Thiénaba c'est pareil nga dem Niassène Kaolack c'est pareil Yoff Doudou Miti Yoff c'est pareil hein. c'est pareil Li mooy xew te kenn du ma weddi ñu ne bu ko fi wax bu ko fi wax tu blasphème c'est un blasphème, c'est scandaleux, c'est la fin du monde, oui, ça m'a dit, oui, mais mais comment tu peux dire ça Mais ta vie, elle est foutue, mais mais, mais, mais, mais, ça, ça tu as c'est une bopine, oui, ça me c'est la fin du monde, aïe, ouais, t'as rien, aïe, fundium. <laughs> Fundium, qu'est-ce qu'il y a Il y a quoi Dites-moi, dites-moi, calmez-vous, mais il y a quoi Là, là, je vois, là, c'est une bombe, c'est pas une bombe atomique, hein. dama nekk di décrire lu xaw dama nekk di wax lu am ngeen di jëfaru <laughs> c'est incroyable li may wax soo amul ngeen ma amul jamono boobu nga xam ne moo de doomam yaa ngi dem Paris ci jamono biñ naan sàcc gi am na ci lañ dem France di noos doomam yi kat doomam jamono boobu moom Maodo am na ay frère am ak i sœuram yoo xam ne ñu ngi bëgg a dee ci xiif ñu ngi bëgg a dee ci feebar moom Maodo ay mbokkam ñi mu bokkal ndey ñi mu bokkal baay ay mbokkam yoo xam ñu ngi tëdd ci kaw lal feebar nekk sous respiration artificielle oxygénée ndax wopp gu ñu wopp amuñu lu ñu fajoo tëdd ci seen kaw lal yi néeg yi Maodo am ay mbokkam yoo xam ne amuñu lu ñu fajoo mënuñu jënd seen ordonnance moom mi ngi tëju ci këram ak jabaram soo si ak doomam ñuy noos ñu ne dàggi nañu këram génn nañu fa tant de millions cinquante cinq millions ci li ñu wax cash ak bijoux waaye am ñu ne deux cent cinquante millions jamono boobu moom Maodo mi ngi am ay rakkam yu mu bokkal ndey ak baay yoo xam ne amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan. ndegam moom Maodo nii ngeen yaakaar ndax alaaji Abdoo ko jur kot ngeen yaakaar alaaji Abdou ndax Maodo ko jur kot ndegam Maodo mi moo mën a muñ ay rakkam yuy dee xiif waxantuma laak ay mbokkam ak cousin am yu nekk teewoon di xëy di segg café di ko jaay ngir am ci la ceeb bu ñu lekk di xëy di jaay gerte caaf ci buntu jumaay tuwaaw ñu ndax am ci la ceeb bu ñu jënd dañuy ay mbokkam di seen deret Maodo leen forom ba faalewu leen tëj koofu forom ay millions di ko dompat di ko lekk ca Ndakaaru ci géej gi ci piir ma ak i di dem Paris ndegam Maodo xolam moo mën loolu yéen ëllëg lan ngeen di yaakaar ci Maodo yow la xiyam mbokk yi déglu leen bu baax li ma leen di wax Maodo si su dee mënee lekk ay ganaram fii naan ay boisson am lekk ay jus am ànd ak ay doomam dem Paris bàyyi leen ci seen xiif gi yéen ñi nekk Tiwaawan di ay mbokkam waxuma yéen taalibe yi yéen waxuma ay wax mbokki Maodo si dong laay wax mbokkam yi mbokkam yi dong laa wax ndegam moo leen mën a seetaan ci ndóol gi ñu nekk xiif gi te yaramam dawul moo ko topp ëllëg yow la xiyam fu ngeen jëm ak Maodo moom moo da boobu ngeen topp muy wax Tiwaawan di jooy allahu akbar subhanallah allahu kabir allah la hawla wala quwwata eh, jooy kër kër ana baatin bi baatin bi ci njëkk mooy sa mbokk bi la gën a jege nga tànne ko di ko dimbali baatin bi ci njëkk mooy sa mbokk bi nga bokkante rek mu feebar nga am jàppal baatin bi njëkk ci baatin mooy nga xam sa doomi ndey sa doomi bàyyi ju li ñu nekk nga leen tey rek rawatina nga nekk ci mag jiite leen amul baatinu xam loolu mais am na baatinu allahu akbar la ilaha illallah am na baatinu defal ay istixfaar Macky Sall yoo xam ne jaral na ko mu ne sama istixfaar yi may defal Macky Sall ku mu naqari nga naan géej man na ko ci Macky de waaye mënu ko ci doomu nday ak baayam bi nga xam ne mi ngi tëdd nekk sous respiration oxygénée subhanallah tuub leen dellu ci yàlla wallahi la azim ku ko deful li nga dee tàbbi safara te lépp jabar je nday sufi si motax du ngay tak jabar xol leen du tak tak jabar bay leen labat gu gaaw tak gu gaaw ngàdd guro ak dogu tangal jarul dara ngàdd guro ak dogu tangal kumu pous ba nga teela tak ta xamoo ki nga tak kumu mu doon lëmbatoo ko wëlbati ko wëlbati wat ko tey enquête ci mom dam laaj ay mbokam ba duggu ci jigen jo xamna lancet la foko duggal muy xott di dem billahi sa aduna da yaq sa àllaaxira nga moytu leen di gaaw a takk ka di gaaw a miire ka gaaw a daanu dee leen tee na tekk ku ci juum ba na ciix jabar ju mel ne ndey suufi da nga xam ne lépp dëgg la takk jabar mu war laa a say mbokk war laa uufal sa lépp war laa yërëm war laa dina wax waaye moom lu mu gën a dagg gën a dagg lu gën a xotti nga xotti ku ñëpp di xaar Maodo ñëpp di la xaar yow Maodo Maodo yow ñëpp lay xaar ñëpp Sénégal ñëpp lay xaar ndax lan lolu sa wayjur moko moko moo alaja ji Abdul Aziz Dabakh moko ko ji Sénégalais nga nek tawal ñepp di la xaar Maodo ñëpp di la xaar lu tax bu ñuy xaar Balla gay wallahi bay ba tax Balla gay mi ñepp do xaar ci lamb ji duubalee sa tax bu ñuy xaar Balla gay ci lamb gi duubalee sa tax bi Balla ci lamb ji Balla wala na doomu Balla def na ci làmb ji loo xam ne kuñ na bàll kuy bàyyi yoon jubale sax nga ne ah bettu ma Maodo foofu la ñu doon xaare sax jéem naa doon bàyyam Balla gay naa mel ne du balees ay waay Maodo Maodo ay waay Maodo dellu dellu xel ay waay Maodo xanaa du yaay taawu El Hadj si Aziz Dabakh Maodo fi réew mi toll tey ji ay jafe-jafe fi Sénégal toll sa waajur bu fi masaan a nekk dund bu réew mi masaan toll fi ñëpp koy dégg Maodo ngay tagg buur di tagg Macky Sall Maodo di fréquenté borom alal yi Maodo borom xaliss rek mo lay intéressé Maodo borom dara gi rek ngay waxal Maodo ñooñu rek nga ubbi sa buntu ku am rek Jean Claude Nimra Diagne Ndiaye Macky Sall Youssou Ndour naaru Libane yi am xaliss yi Khalifa Sall Barthélémy Diagne biñ jox ci Dakar Maodo ñooñu rek ngay fekk Maodo ñooñu rek ngay fréquenté ku am rek baado la bokku ci ay Maodo ci ay Maodo Maodo ak mbax neeku ci am neeku ci ñàkk nit yalla yi neeku ci am neeku ci ñàkk Maodo delu ci sa xel quatre-vingt-trois ans nga am Modou doo gone quatre-vingt-trois ans Modou si looy jooy fu la fekk yaa ngi jooy Modou lu xew loo xam bu ñu xamul Modou lu tax ngay jooy Modou loo gis ci sa kanam bay jooy Modou lu lay jooy loo tout le temps lu tax ngay jooy tout le temps ay waay Modou si tuubal Modou si tuubal Modou si tuubal ba ci topp àdduna bi poñetum àdduna alalu àdduna nite àdduna yi ba nga jël sa àdduna jaay leen ko ci luñ lay jox ndax nanguwuloo liggéey nanguwuloo bay nanguwoo dem jagsaaw ak njerne bay bëgg dund gu nooy dund gu neex climatiseur yuy wëndeelu pièx mi di la dugg ngay banaanaa ki café tëdd ci ay hôtel di jaay ne dangaa silwiise yu kenn xamul say njaboot uuf la ngeen di lekk laxmu di dem paré que ya, fu nek ngeen fa dugg yo seen passeport diplomatique borom dara jey ya dugg ko genn wallahi bis nga ñew bo xamne dana melni bisub Lamine gey kene ba sa waju taxawé ana Lamine gey mi ngi tëdd ku ci xam ci lu mu nekk kenn xamako moytu len sen bop moytu len sen bop moytu len sen bop sa baye ko waxon de du man damay netali dong di fatten, bis nga ci bis modo modo sa bop sa jabar ji nak di sofi nday sofi wu la lo dugg mo la ci dugg peeg na la téye la di dugal ci lu ko neex waaye dana ko layoog boromam ëllëg noonu day sofi waaw ak mbaax de su ko doon ak mbaax nekkul ci deret ak mbaax nekkul ci ngir ak waa mbaax nekkul ci waaso ak mbaax nekkul foofu yëpp kenn ku nekk liy baax ci yow yaa koy góorgóorlu ci sa bopp ba am ko du lu ñu judduwaale du du ñu ci bàyyi du ñu ay tappale loolu ay fenn làppato yi nag ña ngay xataraayu ña ngay yuuxu ña ngay eh, <laughs> naka jekk làppato yi moom dem tiktok ñu ngi saaga waa tiktok ngay jëfër ngay Saga mais après saaga yoo xam du tee may wax li wax te li wax kenn du dindi saaga ngeen ko bëgg dindi li wax saaga ngeen ko bëgg dindi du fi da ngeen koy indi ci ay lay ak ci du ko du loolu loolu du tax ma noppi waaw ñoom nak xam nañ ma de Maodo bi may waxal xam na ma bu baax a baax a baax <laughs> yéen yéenay saaga waaye Maodo sañu maa saaga de Maude, soy un masaga. Wallahi lazim soy un masaga. man du ma ab làpp juru ma de yéen ñi ma xamul yéen a fi toog di saaga dem leen ngeen laaj Maude kuy akatatoon da nga leen wax kuy akatatoon wax leen kuy bàyyi akatatoon ak samay waajur Maude moom Maude yéen yéen a xamul mais Maude xam na xam na bu baax xam na kii wax bu baax wallahi lazim yéen doomi làppato yi yéen doomi wengal ngémbe yéen ay saaga waaye Maude du ma saaga mukk moom xam na kii wax kan la ku xamul rek xamoo da ngeen di caaxaan rek billahi da ngeen di caaxaan foofu laa yem man foofu laa yem foofu laa yem moo de xam na yéen yéen xam waaye moo de xam na bu baax a baax moom xam na kii wax ak kon mbokk yi beneen côté mafia bi laa leen ci ay parrainage gi ay Sonko léegi Sonko la bu leen fàtte beneen mafia bi parce que beneen mafia bi ñoom ñooy jàppale Macky Sall pour tër Ousmane Sonko rendi may wax ni moom mafia bi Macky bi ñoo ànd loolu moom xam ngeen ko loolu moom xanaa du xanaa lu ñuy nekkatul lu ñuy werante loolu moom xanaa léegi xam ngeen ko ay at a ngi nii ma di ko wax xanaa léegi xam xanaa léegi leer na la mafia politique bravotique xanaa léegi nag amatuma lu ma ci prouver xanaa léegi nag léegi xanaa léegi seexal ngeen ma ci mafia politique opérative bi xanaa léegi leer na wala ba léegi des na leeragul <laughs> ilaha illallah waaw ah, kon leer na alhamdulilah man loolu mooy sama rôle fekk lu ngeen umpale lu lëndëm ma taal lamp bi nit ko ci teg ko ba mu leer ngeen mën a jël pare naa ci sama gaan wàcc ndax jàpp ngeen wala jàpp leen da ngeen di gëm wala ngeen gëm loolu man sama yoon néew ci waxuma pour kenn di ma gëm waxuma pour kenn di jël wala di bàyyi damay wax pour ngeen xam damay faram fàcce ba mu leer ndax da ngeen jàpp wala du ngeen jàpp di ngeen gëm wala du ngeen gëm loolu man sama yoon néew ci man forcé bu ma kenn mu gëm wala mu bañ gëm waaye danaa fexe ba li wax mel ni midi leer naññ ba yow li may dugg di nga xam ne kii li may wax lu leer naññ la la ca des nag moom yow ci yow la aju gëm ak bañ a gëm topp ak bañ topp kooku moom du ma kooku moom yéen a ko moom yéen a ko moom du ma du ma du ma dugg ci seen néeg du ma du ma dugg seen coffre-fort comme ni ñu ko tuumalee gars yi dugg ci coffre-fort Maodo man du ma dugg ci seen coffre-fort loolu moom yéen a ko moom seen dama leen koy bàyyi man sama jaan wàcc na foofu la yem leer ba mu leer nañ ma dox sama dox. waaye maam Ousmane si. mi nga xam ne mooy caatu baax mu góor maam Ousmane si mooy doom bi gën a ndaw ci doomu Abdoul Aziz Dabaax dëkk ci Blaise Diagne dem leen ngeen seeti maam Ousmane si mooy caatu alaaji Abdou bu góor ci suñu maam soxna Tabara Gaye maam Ousmane si dem leen seeti ko ma nga tëdd dañ ko branché ay tuyau pour muy noyyi amul lu mu fajo alaaji Abdou ko ju moo tax ak wilaya nekkul ci am am naan sama maam fi bàyyi li moo fi nekkul ci loolu nitu yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yalla du fayantoog ay nitam ci alal doko ko ba ba noppi mu jox la alal yalla du doko ko doko doko defal lu bax mu di fay alal yalla yalla mo mak alal <laughs> ko gis mu nek yu dut alal rek xamul yalla yalla limi muy fayantoog jaami du ay alal yalla limu am ci li gën mu diko fay jamm ëllëg la ko koy fay qiyam du fi alal mais ñoo ñu bari xamuñu ko si di doom ci doom yi gën a ndaw ci doomu alaaji abdu yi ma nga tëdd feebar respiration oxygène néew doole ndax alaaji abdu nag bàyyi wu fi ay milliards yu nit ñi doon dante alaaji abdu dundam bàyyi wu fi milliards yu ay doom di doon de déggu leen ma de dabbaax bàyyi wu dundam dagale wu fi ay milliards yu fi bàyyi ay doomam di ko doon bàyyi ko fi am na nag ñu fi nekkoon xalif nag dee bàyyi fi ay milliards seen doom yi doon na ko du jeex ci réew mi moom bokku ci sama làmmiñ ca kaw ku may weddi maa ngi lay xaar fii gone may weddi waaye mag du ma weddi de bari na fi milliardaires yi xalif général yu dee bàyyi fi ay milliards seen doom yi seen deux laa wax moom bokku ci ceppet moom kot nga mën a waatal bi mu génnee àdduna bàyyi fi dix francs mali yu nit ñi lu tax parce que la koy fekk ci bàmmeelam du ay milliards la ko yitteloon ba bu duggee ci bàmmeel loolu fekk ko fa ca loolu la nekk il est riche ci jaamu yàlla ci ragal yàlla ci defar askan wi loolee tey moo moo loolee ko topp ca bàmmeelam waaye du milliards yi moo tax doom yi mu fi bàyyi amuñu di franc mali ku ci am coffre-fort boo jënd ay millions Maodo la ndax lan ñi muy fréquenté ñoo ko koy jox mooy nitu àdduna yi ay naar libaana yoo xam ne dañu amee xaalis xamoo ko ay politiciens yoo xam ne ñëpp ay sàcc lañu ay góor jigéen yoo xam ne doo xam fu mu jóge ay ñoom Diagne Ndiaye ak xam ne xamoo lu ñu doon ñoom kenn ñu doon moo doon ñooñu lay fréquenté ñoo ñoo ko neex booy dem Paris ñoo lay luyeel oto jënd jëndal jox la ay appartement ci hôtel yi lépp Jean Claude Mimran mooy fay bu compagnie sécurité sénégalaise wala euh, Diagne Ndiaye ñoo yor hôtel yi ñooy fay lépp facture yi ñoo koy fay Maodo jaaxaan te yow Maodo la Alaaji Abdu bëggoon ci yow du lii de sa waajur wu tedd woowee la mu ca yow mooy nga dem ca Tiwaawan wala nga dem ca Njarne wala nga dem ca Jaksaaw ca tool ya toog fa tabax fa sa néegub dóor ab néegub dóor tabax fa sa sa sa néegub sàkket kërug sàkket bu baax jël say soxna yóbbu fa tabax fa daara ju saf sap yor sa tokkoor di bay ñàmbe ka pulloo ko gerte mu lew la dom nga diko dundé nga jaamu sa yalla jàngale lolou la alaaji abdu bëggoon teew ca jag saaw ca aynu maadi te nga génn ndakaaru ci nga taxaw lank na yow ndakaaru do ko bàyyeeg ñom Jean Claude ñom ñoom Barthélémy Dias boy taw ñom Khalifa Sall ñi nga xamné doxan kat yeeg sacc kat nga do ko baye ñom yag ci seen biir di fréquenté ñom ñuy sacc di indi la jox ngay lek and ak nday sofi sa jabar ci darajay kan nga ne alaaja loolu la alaaja abdu liggéeyal yàlla alaaja abdu li mu doon pour lii la ay Barthélémy Dias ki Khalifa Sall ki Jean-Claude Mimran ki Ndiaye Ndiaye ki Macky Sall ki ñooñu Mariam Faye Sall ki Bali Muntaxa loolu mooy dara loolu mooy li alaaja abdu doon liggéeyal yàlla subhanallah ñooñu ñooy ent Maodo ñooñu Maodo dafa am complexe nit ko am alal am complexe nit ko am tour Maodo dafa am problème dafa am complexe boobu ndeysaan loolu daf ko judduwaale depuis il a toujours été comme ça il a le complexe des gens riches il a le complexe des gens célèbres Maodo dafa am complexe boobu ndeysaan xam complexe moom il n'est pas fier de ce qu'il est te pourtant dafa war a fier ci boppam doomu alaaji abdu képp ku ñu alaaji abdu moo jur yow da nga war a am fierté ci yow ndax alaaji abdu macha allah mais moo dafa xeeb boppam dafa am maanaam dafa suusee boppam dafa amul fierté ci moom wallahi al azim li ëpp solo ci doomu aadama mooy ay valeur waajuram am na ko ba moom moo da waroon na koo mën a roy tiitaro ci loolu moo gën ay Mimran ki ay Jaaja Njaay ki ay Macky Sall ki ay mag ay ay Marème ki Barthélémy Dias ki Khalifa Sall yu kenn xamul xeeb sa bopp cam bu fa ab baadoo la ñëwee a baykat indi ko ñetti kilo dugub di seet si Maodo ñu ne ko nekku fi amul jot sofisee def loolu di benn taalibe baykat bu jóge ca benn xoor dàq ñetti ganaaru dàq jàppam ñëw di siyaar si seet si Maodo ci buntu kër gi fëgg ah, sama sëriñ bi laa seet dama koy nawee ay ganaar jàpp ñu jël ganaar yi jël taali ne ko suñ bi dafa jàpp daañu ko jox ganaar yi daañu ko ko yëgal ndeysaan waaye su baax la mi jaar ñëwee ñëw bi bunt yi oto yi dugg ba ci biir bu Jean Claude Mimra ñëwee ñëw bunt yi bu Marième fessal Sall ñëw bi bunti Khalifa Sall ñëw bunti waye talibé bi ngeen nekk jóge xol mom moom ñaari ginaar dàq jappam ak ñetti kilo dugubam di siar ci sëriñ bi mom bu ñëwee ñu jël dugub bi ak gënal yi ne ko sëriñ bi dafa japp dañ koy agalé sa nuyo ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan c'est triste c'est vraiment triste waaw ndax sen salle yi climatiseur yi sen salle yi ci climatiseur yi climatiseurs yeeg tapis yeeg moquette ak décoration bi donc taalibe bi jóge ci àll ba ñoom tànkam yu xar yeeg yëre yi turki njaare yu forox yi euh, gannaaw dàq jàppal bi nga xam ne booy xef ñuy puub ci tapis bi ñooñu mënuñoo dugg ci kër gi ñooñu ci buntu bi lañuy yem gaal gi ñoo leen téye nangu ganaar yeeg ñett ci lay pepp yi na leen dem baax macha allah waaye bu Mimran ñëwee nag wala Jean Claude borom daraja yi marto yi ñooñu ak góor jigéen ñi ñoom bu ñëwee moom buntu yi dañu ubbi oto yi daw saraax dugg ba ca ñu tëj buntu yi ràpp toog nag pencoo waaw waa kaw gi ñoom ginnaaw dàq jàpp la ñoom bu ñu seet si seen sëriñ si ginnaaw dàq jàpp la ñu ni jàpp la ñu indal ak akum pep sëp pep gannaaw dàq jàpp loolu lañu am di ñoom ñooy jafandu leen ci mbay ñoom ñooy ñoom ñooy daayire ñooy tante tante yi ñooy jàng jàng yi ñooy lal baas yi ñooy raxas bool yi ñooy indal taxan mi ngi taxan matt mi ñu toggee gàmm gi ñoom ñoom ñoo ko def di ba ñoom ñoom ñooy bay bu ñu bayee noppi indi dégg mam ëreen ji indi pep mi indi dégg nga maam gannaaw dàq jàpp yi ñooy ñoo ko def ñooy cotiser ci daayira yi waaye ñoom foofu loolu loolu mooy seen wàll ci mi. ah lii ma de te am du ma weddi moo am de néew du dégg nag waaye moo am de moo am de. nee na ma say wolof man wolof biir la man dama ko namp man xam nga man dama dul namp toog waxantoog defantu man amul lu may defantu loolu olof bu wax lu olof wax ne tu tu mooy lépp loo xam ne tu la moytu ko olof olof da ko bañ mooy defantu waxantu dégg nga maam gisantu lamba lambantu lépp loo xam ne dafa am tu man bokkuma ci tu gi man dama ko dagg sànni man lépp loo xam ne man dama man amul lu may waxantoog defantoog gisanteeg yooyu yëpp de ci digg bi rek ci digg bi rek wala loolu dama ko namp loolu loolu ay wolof la nee am pepp ah, ak ak sa ak ak ak ëreen xam naa nañu lu waa luy ëreen man ab kajoor kajoor laa de kajoor kajoor la te mu lu jafe nag nekk kajoor kajoor ba noppi nag jug nag nar a jaamaaloo sëriñ xam nga sëriñ dañoo for ci kajoor rek ki bawale ki njàmbur dañ faa for ñoom kenn du leen tudd ay yàlla lañ fa ab kajoor kajoor génn ci biir na jaxeet kooku yàllaay def lu mel noonu jaakaar la ñoom nag leen wax dëgg boo a weddi dara mën nañ laa tëkku nag mën nañ laa saaga mën nañ laa tëkku dañ lay rey dañ yàq sa der waaye nag kenn du weddi li ngay wax kenn ci ñoom mënu ko weddi li wax waaw rek dagg leen tugi sànni jàll rek lépp lu maanaam loo doon wax bu amee tu dagg leen ko sànni fee xoolantu yërëntu lekkantu waxantu lepp lu am tuur dagal leen tuur sànni fële ndax du cëkk la lu matul la te lu cëkk baaxul amul njëriñ wax day mat li nga def day mat wax ji day leer sa wolof fi ngay làkk bu ma làkk lu may làkk su ma neexoon toog fi leen làkk anglais ba suba leen làkk anglais ba suba français ba suba su ma neexee kenn ñoom ñi koy wax ñoom Sénégal kenn gënu mu ko dégg ñu mu ko dégg waaye ma tey damay toog di wax olof yu leer nañ ndax damay may wax dama bëgg dégg moom laa nam moom laa xam waaw su ma neexee su ma waxee day mel ni ku mësa a toog ci ay bango ku mos a jàng ah da ngay da ngay doon li nga doon ba noppi ne ubbeeku dem déggaale waaye li doon moom na mokk rumbo rumbo rumbo foo ko ne naan ñu xam ne loolu nga doon waaye di complexé lakki tubaab ak costume cravate ak fu demee ci ci ay làpp toy yoo xam ne ko ci fëgg ñaari waxi olof xamul lu muy tekki non non mais foo jëm réew mi nu mu demee xeeb sa bopp complexe nekk ay làppato yoo xam ne kenn mësu gis lu mel ni loolu loolu loolu gi sama combat la bokk lool moo mag Ousmane Sonko li Sonko la bokk day yàqal Sonko li may xeex moo mag Ousmane Sonko li xeex moo gën a puissant li Ousmane Sonko di xeex foofu gën koo foor waaw cagatu waaw mhm. loolu lépp rek lu am dagg leen tuggi rek lépp rek waaw bis damaa dem di tukki jaar Tiwaawan jaar Tiwaawan wàccit ne tey damay taxaw Tiwaawan dem ñaanale Alaaji Abdul Aziz Dabaax bi ma ñëwee Tiwaawan daa di julli ñaari rakka dem ci xabru alaaji abdu di ko ñaanal tey naa leen ko nettali bi ma duggee ci xabru bi di ko ñaanal maa ngi fa fekk ay yeneen nit ñu ngi ne rukk toog di ñaan di ñaan di kii xool xool xool ñu di génn xaalis sànni ci biir xabru bi sànni xaalis xaalis xaalis man ma ñëw taxaw na xujj tiim xabru bi di ko ñaanal di ko ñaanal di ko ñaanal di ko ñaanal ba noppi daal wàññiku ñëw ba ci bunt bi di génn waa ji garde xabru bi mi ngi toog ma ne ko ana kiy garde xabru bi mu ne ma man maa koy maa koy saytu ma ne ko bus bu nekk yaa mu ne bus bu nekk maa ngi ma ne ko nii ñuy defee ci xabru bi nii bus bu nekk noonu lañ ko defee bus bu nekk mu ne nekk lay demee ma nga jàmbaar la di daal xëcc ne ma xab ñi ci ginnaaw ñi ñu suul ci ginnaaw xabru bi ñu nekk ci beneen néeg bi mu ne ma di kii mooy diw kii mooy diw wax ma limal ma ña fa nekk ñëpp ma ne ko a ah, baax moom lam may limal jàmbaar la ci xam naa ku fi ñëw loolu mooy liggéeyam ku ñëw wax ne di bi fii di wutu bi fii loolu ak njàmbaar la ko def waaye xam naa bi yoon moom xamul xamul ci kum tombeel ma ne patt rek moom waxee ba noppi ma ne ko waaw damaa gis sànq dama taxawee man di ñaan ñëpp di ma xool ndax ñoom ñëpp dañoo ñëw toog na rukk ci bàmmeel bi di ko ñaan man taxaw tiim bàmmeel bi di ko ñaan ma gis ñu mu mel ne loolu taamuñu ko fii sax mu ne ma waaw man sax maa ngi gis nga di def waaye jaaxal na ma lu tax ñëw toogoo ne rukk comme ko ñëpp defee ma ne waaw man du ma toog benn ñaareel bi ma ne ko damaa gis ñu jël xaalis di ko sànni ci biir xabru bi loolu loo ñu la moo tax ñu di ko def ah waaw ñoom dañ ko tàmm ma ne ko ma ne ko yow mi toog fii est ce que xam nga yow seede nga ëllëg yow ma xiyaam ne lii lépp da nga ko seedewaat sa kanam borom mu ne ma ci lan ma ne ko xam ngeen ki tudd fii kan la mu ne ma waaw ma ne ko xam nga ko bu baax ba mu ne ma mu ah, xam naa ko kay ma ne ko déet xamoo ko ma ne ko ki tudd fii soo ko xamoon yow doo toog fii di seede ay nit yu fii sànni ay cent franc ci mille franc ci xabroom bi ay risques yu mag ngay jël yow risque ay risques yu mag yu garaaw yow war a lay ëllëg toog fii di bàyyi nit ñi di fi shirk ñëw tiim ko ñu mel ne kuy jaamu yàlla ñu mel ne yàlla luñ suul foofu ngeen jéggal ma ci kàddu bi ñu ne rukk mel ne ku gis yàlla te alaaj abdu du yàlla ab néew ma fa tëdd ñu dañu ñaan suñu soxla dañu yàlla ñu yàlla taas ci barkeem may leen ci limu mu liggéey yàlla yàlla nga ko tëj ca magasin barsàq ya tax di ko xaar amul leen lu dem barsàq di dellu si fi leen fekk yéen yéen a néeg ñuy taxaw ñëpp di ma kujj taxaw di ma xool yelwaan kat ndeysaan am na ñoo xam ne fa lañu jël dépense ñu ngi taxaw ñoom ñëpp yàkkamti ma def ne leen ngeen di ñëw naan leen ci barkeem yéen barkeem yéen a ngi ci a ngi ci am dépense yéen xaalis bii ngeen dajale bu bu bu nga wax dañu ko dajale def ko ci saako yóbbu ko njël fuuta ah bon ngeen ko dajale yóbbu fu lan ah xaw daal dañuy dagale takk ko ci saako mu dem waaye yéen nag ah waaw ñun dañun suñu xëy la ñu ñëw toog ku ñëw siyaare lu ñu jox ñu jël ñëw bu kër yi ndax kër yi dara néew fa man leen waaye yéen ñi yelwaan fi yéen taxaw ne ba ma pare ma ne yow miy garde fii gis nga bo amul fu la yow yaa ngi may woon ñu dee fee fee fee d'accord yooyu yëpp man xawma ko loolu intéressé wu ma ku kuñ suul see kuñ suul ça ça m'intéresse pas man damay fay jaar pour ñaanal jëmm ji gis nga jëmm ji di fii amul lu fi nit di ñaan yàlla di ko nangu lu dul lu ko nit di ñaanal moom yàlla nangul ko defal ko moom ki tëdd fii moom moo soxla ku ko ñaanal yéen yéen ñaan ci barkeem <laughs> subhaana man ma man daal maa jëf <laughs> mësta gis lu mel nii ñu ne xujj di ba xool nag mu mel na àdduna bu tukki ñëpp xulli seen bët ñu waa dof bii fu mu jógee <laughs> mooy leen nit ku dee kenn du ko ñaan dañ koy ñaanal fekk nit ku na làcc ñu suul ko ci suuf ruuga nga ba sàq ngeen taxaw yéen di ñaan ci ru ci ci moom pour pour ci seen bëgg-bëgg ngeen ci bàmmeel bi ngeen ko saafara amul benn bëgg-bëgg bu yàlla di saafara ci bàmmeel te kii may waxal kat yéen ma ko gën a xam nit la koo xam ne dundam yëpp gàcce nga lam waaye lu mu def ci lu baax ci dundam amul màqaama ngeen toog ci bàmmeelam bi di ñaan yàlla di ko nangu ci seen àdduna bi ndax moom ma nga bar sàq nekkatu fi xamatul li xew fi ngeen taxaw di ko ñaanalee xamul na yéen a ngi ko tiim xamu ko ndax yàlla téye di lu ngeen lu ngeen ko ñaanal ruu gi capté ko waye lu ngeen ñaan ci mom ruu gi du ko gis ndax ru bu xasse ba genn aduna du del du xam lu xew ñaan yi ngeen ñaan naan yalla nama yalla tassi barke yàlla di fi ne xaliss bàkkaar yi ngeen ci jëlee bu ngeen ko xamoon da ngeen ko moytu attention ñu ne ñu ne teg leen kees gi ngeen daaj ci bàmmeel bi dañu ñëw ba ci bambe bi daaj fa kees di ndax loolu dafa xew manam maanaam suñu alaaji abdou dañu fa daaj dañu fa daaj ben kees bo xamne ne ku ñëw fëgg dugal xaliss suba man ma maa jommi deug deug deug ab neew bu tëdd ba muy dund nga diko top ci barkem di gi dund mu dié nga daaj kees bi ci ci bop neew bi ci ci pegg bi di gi dund man nit ñi ñoo neeg deug deug deug deug nit ñi ñoo neeg ku ma sa gis xana yow booy dund ci barke nit ba nit ki dié way way nga na jaanam wàcc na léegi naa ko ñaanal yàlla waaye da ngay dund ci barkeem ba mu dee nga ñëw daaj ab kees taf ko ci mbaggin ci bàmmeel bi nag di di di rompe di ki dund subhanallah nit ñi ñoo nekk ku mas a gis li mel may leen ceeb gi ngeen daaj ci bàmmeelam bi teg ko fi di ki di ko encaissé di ki nappaaje jënd ceeb daaj gi leen ko ngeen génne ko ci biti teg leen ko fële génne ko ci xabru bi te ku fi duggati na nga ko ñaanal yàlla moom génn dem soo amee la joxe nga jox ko yéen yalwaankat yi ngeen ñu jox leen ci biti kees gi ngeen daj ci bàmbe bi daj leen ko ci bàmbe bi teg ko ci biti bu ngeen amee lu ngeen saraxe ngeen joxe bu làppato yeeg euh, faxir ñu lekk ko ngeen def ko ci gi fii nit ku soxla yàlla yërmande yàlla nit ku nekk barsàq te mënatu ci boppam dara moo tëdd fii soxla yërmande yàlla soxla ku ko ñaanal soxla ku ko ñaanal ci yàlla yàlla musal ko ëllëg moo fi tëdd ngeen di dund ci deew di encaisse xay di nappa di togg seeni ceebu jën suba yena yena yéen bont néeg <laughs> ku ma sa gis lu melni illa illa la ya tas coli na kur deg nañu mës sa deg tay nak dekk bi lak ah, illa illa la ah waa kii moom di waay moom ni nga xujj ku nekk ne ku nekk ñëw ak kan waa kii na waa kii wax ñun <laughs> yii kii daf ñoo fekk ñun suñuy kii may màngoog daal di génn ne yéen ñi nga xam ne xaalis ngeen suñu acakaar yi dem nañ génn ñu génn nag bu ñu génnee ci xabaru bi rek am na benn place bu yaatu xam ne place su suuf ñoom ñëpp ñu fekk ma fa nag maa ngi sama paquetu xaalis nag sama paquet damaa ngi sama paquetu xaalis dugal sama loxo sama génn sama paquet nag daal di dajji dajji paquet bi nag teg fee nag di yëkkati benn par benn am yow yow am yow am yow am uma weccit seet dool joxal kii lii joxal kii lii joxal jox leen ko ma ne ni mo ko defee ni laa bëgg ku fi ñëwat nako defé non bu amee lu mu leen jox ndax da ngeen fa yaakar barke bu leen ko def ci xabru da leen ko def ci biti seen mbiri aduna ni ngeen ko def ci place yi aduna yi ñi tuddu ci ne nga ak alakhirah bokul, ñom ñi ngi seen ben tank ak al-akhirah bu leen jaawale ay ñaaru alam yi bokul seen mbiri aduna ki seen i ceeb ak lu ngeen di dundee ki seen ordonnance yi ngeen di fudugi, da leen ko liggéenti fu leen ko ta sori bambel bi bu ngeen fa duggé na ngeen fi dugg ak ñaanal ko yàlla mu yërëm ko bu ngeen noppee ngeen ne mott génn fi waaye dama leen duma ba noppi nag dàmp leen jox leen xaalis pour wax ji ma dugg su ma ko waxoon rek bàyyi duñ ma dugg kii ku soof la wax dofam yi mu wax ñun waaye dama leen a bàcc bàcc bàcc bàcc comme ni ñuy bàccee gerte nag daal di génn sama paquetu xaalis yu bees pàq nga xam ne pël laa la ko nag kenn ko nekk ma la am nag dàmp leen nag wax ji dana dugg dem sama yoon nee na man fii du ma fi taxawal du ma fi ñëw dawul fa jaar soo ma sànni romb Tiwaawan bu ma gisee soo romb Tiwaawan laay commencé def sama ay dog di leen ñaanal ñoom ñu tëdd foofu romb Tiwaawan musuma faa romb te ñaanal lu ma leen surtout àlaaj abdu ma leen ñaanal daaw waaye tey ko defati bàyyi leen ko ko defati ana ko fi nag nga ca naa sama yoon loolu loolu loolu moom loolu ma may leen ko tey loolu laa leen may tey ak yeneen ak yeneen yeneen yoo xam ne bu ñu taxooree bu soobee yàlla da ngeen xam yu bare bare da ngeen ko xam nee na ay bàyyi pël yi waaw pël yi moom xam nga ñooy sama doomi bàjjen ñoom pël yi ñoom lu ma am yàpp yàgg leen pël yi moom lu ma yëkkati yàgg leen pël moom waaye pare yéen moom yéenay sama mis lu laa koy teg yéenay sama doomu bàjjen yéen pël waaw paquetu xaalis bu bees tàq boo xam ne pël laalu ko خبط خبط خبط خبط ها non lo demede kon tey bii laa leen di may pour xamal leen ne Maodo si mi may wax nii moom xam na ma moom moom xam na may kan moom Maodo bu ma déggee dina xam may kan waxuma ko parce que dama koo bañ waxuma parce dama koo mere waxuma parce dafa am lu mu ko yéene waxuma dara damaa bëgg moom Maodo mu baax comme waajuram na mu baax ni ma bëggee waajuram boobu ak fi ma teg waajuram boobu ci loo xam ne waajuram liggéey dama ko ko yéene moom Maodo moo ma di xaram nii <laughs> xam naa di xam leen xam leen li may wax de li may wax xam leen dara ndax yéen par par rek ak làppatu waaye Maodo moom xam na moom bu ma dégloo moom xam na kii wax kan la waaw yal nañu yàlla defal dégg ak topp yàlla raxas suñu xol yi def ci tawxid ak ragal yàlla yàlla ubbi suñu bët yi def ci leer ba ñu mën a xàmmee ay fen ak ci dëgg yàlla suñu xol yi suñu xel yi yàlla raxas ko defar ko niit ko ba ñu am fit am ràññeet la am xam sañ koo wax te duñ ci ragal dara lu dul ko ci ne lii la yàlla bëgg ñu di ko def di wax bañ a parparloo kii sama lii de kee sama le de foo war a waxee wax ko boo ci noppee bàyyi sa bopp yàlla yàlla nañu ko yàlla defal ndax bu amul rek ñu dee tàbbi safara ñu ñëpp li may wax buñ ci dëkkul man ak yéen ñun ñëpp dañuy dee tàbbi safara amul werante te yéenewuma ko sama bopp yéenewuma leen ko moo tax ma di ci sonn nii amul le su ma neexoon heure bii maa nga toog sax ba ko wala dina paage sama jeeg comme ñëpp. def di xayaat mais defuma ko maa ngi bàyyi sama lépp bàyyi sama njaboot sama jeeg toog fii di wax ak yéen parce que li ma yéene sama bopp laa leen yéene Maodo moomu li ma li ma yéene bi ma am ci waajuram laa am ci moom Maodo dama ko ñeewantu moom Maodo si dama ko ñeewantu waaye nit nag boo ko ñeewantoo doo ko yërëm góom boo koy faj boo ne moo ko defee alcool mu saf doo ko faj il faut nga def ci alcool mu saf te su ma nee ko moom dama koo ñeewante moom war naa gëm loolu moom Maodo war naa xam loolu waxuma ko pour xarab ko waxuma ko pour yàq dara waxuma ko pour dara dama koy dimbali ndax waajur mu góor di da baax mooñu jàngal na dëgg fu mu a dal na dal moom Alaaji Abdu moo ñu xamal ne bu dëgg taxawee na dal amul sama lii la amul sama la dëgg dëgg la ko moom alalam na kenn moomu ko kon moo na nga yërëm say mbokk yërëm say rakk ak say mag yërëm say waa Tiwaawan yërëm sa taalibe yi yërëm waa Sénégal yërëm ndaw ñi taxaw ñoom te moytu nguur alalu nguur alalu borom yi daraja moytu hôtel yi moytu Paris moytu restaurant yu neex yi moytu climatiseur yi moytu dégg nga maam coffre-fort yi moytu moytu moytu moytu Maodo moytu loolu ndax loolu du tax sa loolu day wàññi ak leer Maodo loolu day wàññi leer loolu day wàññi leer Maodo asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp di leen jox di profito di nuyu Ndiol Fouta di nuyu euh, Mama Sarr Kébé ah ndeysaan saa yu ma ko xoolee sama xel ci alaaji Abdu ndeysaan su ma xoolee xar kanam gi rek yàlla daal mooy ñu yàlla rek Mama Sarr Kébé ndeysaan dana leen yàlla sàmm waaw ah, yéen ñëpp yàlla gindi leen teg leen ci siraatul mustaqim yàlla moytu dox seen digganteeg poñetum yal na yàlla dox seen diggante ci poñetum àdduna ba mu bañ leen a yàq seen iman yàq seen jaamu yàlla ba bu ëllëgee bu ngeen taseeg Mawlana Cheikh Cheikh al Abdoul Aziz Sy Dabakh ca barsàq ngeen di sëgg di rus moytu leen loolu poñetum àdduna jaru ko moytu leen loolu asalaamaaleykum fanaan leen jàmm yal na leen yàlla sàmm sàmm Sénégal gépp te ñu ci lépp luy mbon rawatina lii nga xam ne Macky Sall moo ko fi indi ak képp ko ànd ak moom di ko ñaanal yàlla na yàlla boolee Macky بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم أنا للجامعة